asalaamaaleykum euh, tey le samedi euh, comme d'habitude euh, am contenté ak mbégte recevoir at leen encore ci suñu plateau di nuyu suñu invité yi di nuyu particulièrement suñu téléspectateurs yi nga xam ne du ñu fidèle di xaar émission c'est-à-dire bi tous les samedis ci heure bi ndax heure bi mooy heure bu baax donc tey dañuy recevoir madame Ndeye Awa Dieng Euh, actrice de développement, membre du comité directeur de, du parti euh, euh, du parti PCS Jëngu Tabax. PCS Jëngu Tabax. PCS Tabax. Mm -hmm. euh, présidente nationale des femmes hein? c'est bien oui, ça oui. du parti waaw. d'accord après ensuite en deuxième partie nous recevrons monsieur Abdoulaziz Seck responsable à Rufisque chargé d'études au ministère de pêche et de l'économie maritime madame Dia na def. maa ngi fi euh, Fabienne. alhamdulilah. macha allah. Mhm. maa ngi euh, nuyu euh, yéen ñi ma bokkal plateau bi di kontaan vraiment ci invitation bi ngeen ma invité. Mhm. di nuyu vraiment monsieur et madame Ndiaye borom kër gi ndax nag boo duggee ci kër da ngay nuyu borom kër gi madame Ndiaye surtout. alors Lassana maa ngi lay nuyu. Mhm. mais nag di nuyu sama les téléspectateurs bu 2STV. parce que l' émission est très bien suivie. Euh, di nuyu sama président le président Boubacar kamara le secrétaire général national monsieur Mor Ndiaye et le secrétaire politique et le comité directeur. quand je comité directeur c'est le bureau politique les président de commission alors les euh, voilà. les sympathisants et sympathisantes euh, du PCS Jëngu Tabax. d'accord léegi Lassana moo la naxoon euh, dalal mais comme nag kii na garaawul demal rek. Lassana nuyoo moom moom moo mujj dalal la finalement di ko ci jaajëfal bu baax a baax di ko nuyu di yow euh, Fabienne. et di wax téléspectateurs yi c'est toujours un réel plaisir. Euh, di daje ak ñoom tous les samedis dans cette émission c'est-à-dire. dëgg la dëgg la madame Dieng kontaan ak mbégte la ñuy am di la recevoir ci suñu émission. Euh, voilà nga nekk jigéen boo xamante ne euh, da ngay représenter toutes les femmes du euh, les femmes du RENAFES et là tu es la présidente aussi des femmes du mouvement RENAFES bi nga xamante ne Boubacar Camara moo ko jiite. parti léegi dafa nekk parti. parti parti. mouvement mouvement la nekkoon. mouvement la nekkoon léegi un parti. léegi c'est devenu un parti. voilà parti PCS Jëngu. PSS. PCS Jëngu Tabax PCS Jëngu Tabax. voilà parti pour la construction et la solidarité de la solidarité. de la solidarité d'accord léegi euh, pour rentrer dans le vif de. de de l'émission pouvez-vous yow mës est-ce que mën nga ñu expliquer les objectifs du réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide dans dans dont vous êtes la présidente. voilà maa ngi lay euh, euh, remercier si question boobu ndax balaa may dugg ci politique di ànd ak le président Boubacar Camara man ça c'est à part mais je suis actrice de développement je suis la présidente du réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide ay euh, gox-goxaat ak i dëkk ay femmes yu am solo bokk ci macha allah may profito si occasion bi di nuyu. le commité directeur bu euh, du réseau euh, macha allah ñu nekk ay femmes yu jàmbaare. Mhm. Euh, femmes yoo xamante ne dañu jóg taxaw pour le développement de notre pays amul nag partie yëpp nag ñoo ci bokk pratiquement ñun chef du affaire politique. c'est ay femmes yoo xamante ne sociale si lañ njëkk a yëngu. Mhm. sociale di jàppalante entre aide quand je dis solidarité entre aide bi si biir. ñun dañuy def lu mën a am ci réew mi dugal nañ si sunu loxo pour jàppale jigéen ñi nga xamante ne ay jàmbaar fàq tëdd lañu. Mhm. fii ci Sénégal macha allah donc euh, région bu nekk am nañ fa ku ñu représenté mais itam ñu faxe ba góor góorlu ba nekk en link avec euh, l'institut de management de Dakar dont le le le monsieur Mor Ndiaye moom moo nekk le directeur général ñuy liggéey di fa former nag ay femmes. ba yeneen i dëkk itam ak yeneen i kilifa ak yeneen i partenaire gis ko si ñun di jàppale seen i femmes di leen aider di euh, je peux dire financer lépp lépp ba ñu am seen ay diplôme ñun noonu la ñuy def bi mbas bi ñëwee également def nañu tout yamuñu rek si jigéen parce que jigéen moom moo jur donc xale yi itam dañ leen si boole mm-hmm. surtout euh, xale yi nga xamante ne ñooy les enfants de la rue Euh, taalibe yi. Mhm. bi mbas mi ñëwee am na liggéey bu am solo bi ci réseau des femmes pour la solidarité et lentre l'entraide liggéey voilà. Mhm. d'accord Alassane. oui euh, solidarité ak euh, entraide quasiment pareil euh, mu nekk nag ay volets yu am solo ci réew ndax ñi ñu ëpp doole ci àdduna bi sax ci biir bu ñu jàppalantewul du mën a dem yéen ci ban vole ngeen di intervenir pour jàppale soxna yooyu ak ndaw ñi. bon par exemple si volet social. quand je dis social il y a des femmes yoo xamante ne am na benn niveau boo xamante ne egguñu fa par exemple si étude mm-hmm. mën nga yem CM2 et man comme dama dama yàgg di dox si leadership féminin damay bëgg ñooñu ñu former leen organiser leen aider leen les appuyer financièrement mm-hmm. si je dis financièrement du man maay génne mais yàlla suñu borom boole nañu ma ak relation yoo xam ne avec des partenaires yoo xamante ne dañuy jàppale femmes yooyu ba nga xamante ne ñu si bëri casé wu nañ am nañu seen diplôme ñu ngi demal seen bopp. Mhm. si sur la transformation fruits et légumes céréales locales leadership féminin et alphabétisation. Mhm. parce que dañu jàpp ne réew kenn mënu na dem sans jigéen. te ñooñu toujours par exemple bu ma demee si côté pêche euh, euh, euh, maa ngi nuyu Fatou Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite. Euh, femmes yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci euh, euh, pêche bi mhm. maa ngi fa war a dem semaine prochaine parce que euh, comment dirais-je transformation kii bi li ñuy mhm. def ci géej bi yët mhm. bi loolu loolu les ressources halieutiques halieutique ah, halieutique maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak quatre cent femmes et quelques yi nga xamante ne jàmbaar la mu ngi leen yore foofu maa ngi fa war a émission bi moo tax tey demuma fa mais dama amoon loo xam ne dama fa waroon dem. Mhm. ñu mel noonu dañu nekk genre euh, euh, euh, spécialiste ci li ñu nekk. quand tu parles ne nit ki ingénieur la parce que dafa jàng ba am fu mu toll ñoom jànguñu. jànguñu mais am nañu expérience ak loo xamante ne ak fulla ak fayda si liggéey bi ñuy développé ba nga xamante ne dañu war a def. femme leader yi nga xamante ne dañuy def dañ leen si war a boole ñun ñu ñoo wax a dem approche si daam la ces braves daam la nga xamante ne bu toogee expliquer la même bu fekkee pulaar la mu expliquer ko si pulaar bu fekkee olof la mu expliquer nga xam ne du am benn gêne avec les femmes yi nga xamante ne dañu nekk ingénieur dañu nekk leneen si njàng mi ñu xam ne dañu nekk au même pied d'égalité d'accord dinañ ñëwaat foofu dinañ ñëwaat foofu hmm. parce que li nga wax dafa am solo parce que euh, yow ci également membre du RENAFES réseau des femmes travailleuses du Sénégal et actrices de développement mm-hmm. léegi xalaat nga euh, que les femmes sénégalaises sont assez émancipées aujourd'hui pour euh, nekk ci loolu nekk ci loolu ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy wax en dafa am loo xamante ne sax commencé nañ ko nampatal ça veut dire que boo demee tey si école yi c'est les jeunes fii ñoom ñoo gën a raw fuuf gox ñi donc côté boobu sax gis naa ne bu nu suñu boppam dimbalee tuuti rek ak suñu mamaay ak suñu aîné yi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy gën a jëm ci kalam ci côté boobu. Mm-hmm. bu ñu yàlla suñu boppam ñu continuer jàng bi ñu continuer ko et rester. Mm-hmm. il faut que les jeunes filles. jàng et rester à l'école ça veut dire que continuer mm-hmm. parce que bu fekkente dafa am loo xam ne dañu ko bëgg comme l'a si bien dit euh, Fabienne émancipation de la femme mm-hmm. balaa nga naan naam da nga fay nekk mm-hmm. ba léegi ñun ñi dañuy jàngaat di yokkaat parce que dafa am vision bu ñu am si réew mi am lu ñu bëgg te bëgguñu ñu dóot ñu baaraam ne ñu lii kat yéen ko bëgg et vous n'êtes pas capable te loolu il faut que ça cesse et nous avons commencé à le faire euh, réseau euh, en fait des femmes leaders ñu ngi former nit yi ñu ngi former jigéen yi te c'est des aînés yoo xamante ne tàllal nañ loxo ñun itam noonu la ñuy tàllalee loxo suñu ay doom. Mm-hmm. ñu ngi ci combat boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. d'ici sous peu de temps Sénégal dafay changer. am nga statistique boo xamante ne euh, boo xam ne ni mën nga ñu wax tey nombre euh, ou pourcentage des femmes travailleuses au Sénégal. Euh, Sénégal euh, euh, euh, les femmes. dama ne est-ce que am nga statistique. concernant le pourcentage des femmes travailleuses au Sénégal. bon les femmes travailleuses au Sénégal bëri na mais macha allah euh, nekkul ni ñu ko bëggee woon la nag euh, Fabienne. Mhm. les femmes euh, travailleuses qui sont dans les sociétés attention. Mhm. da may laaj soit les femmes travailleuses. Mhm. soit ñi nga xamante ne ñoo nekk parce que jigéen ñëpp dañuy liggéey. jigéen ñëpp jàmbaar lañ. mais da may wax ñi nga xamante ne par exemple ñoo nekk ci biir. Euh, dans les services ou bien ñi nga xamante ne ñoo nekk xam naa ne jigéen ñëpp ay ay ay ay ay euh, liggéeykat lañu. Mm-hmm. Euh, tax jigéen ñi nag ñoo ëpp góor ñi. Mm-hmm. ça vedir booy wax jigéen ñi pour pourcentage bi foo ko natt dépassé na ko parce que jigéen ñi mm-hmm. ñoo ëpp góor ñi te ñëpp ñëpp ñëpp ñi ngi liggéey. macha allah ñëpp. Mhm. toutes les femmes sont des femmes travailleuses. mais vous à votre niveau euh, est-ce que comme euh, ni ko Fabienne waxee ñaata jigéen ngeen jot a accompagner ba tey jii ñu mënal seen bopp. di dimbali seen njaboot. voilà si ñun si suñu. Euh, si suñu mouvement. Mhm. voilà ñun. wax ma li ma jàpp man ci sama mouvement xam naa ne am naa quatre-vingt-cinq femmes yoo xamante ne ñu ngi fii si dëkk bi di liggéey neew ma nag dañuy liggéey si biir tubaab. Mhm. li ma liggéey ñi nekk ci biir société peut-être ay quinze lay yem mais ñi ci des yépp. dugal nañ leen ci ay camp yow xamante ne ñu ngi liggéey di daan seen doole mais nag ñun ñoo dem outil financement bu ñu leen jàppale pour que ñu bañ a toogati seen kër ñëw di liggéey ça c'est quatre-vingt-cinq femmes yoo xamante ne le réseau defagum nañ ko te dama ko xeeb ndax dinañ ko dépasser parce que ñu ngi nekk huit cent cinquante-cinq femmes mm-hmm. en fait su ma dee demee Diofior bi ma war a dem y a quatre quatre cent et quelques femmes dana si dolleeku donc je pense que daañu xaw a toucher les mille et quelques mhm. Mm-hmm. Mhm. n'est-ce pas mhm. mais quatre-vingt-cinq pour femmes moom la ñoo xam ne dugal nañu leen ñu ngi liggéey et j'en suis très fière ndax di durée bi bariwul mais ñu ngi sant yàlla parce que ñun ñoo ko dañu contribuer si ñu développement wu réew. Mhm. mais 15 femmes yi nga xamante ne nag dañ leen a dugal muy ay xale yoo xam ne dañu am diplôme ba pare te amuñu woon fi ñu liggéeyee dugal nañ dugal nañ leen ñu liggéey. Mhm. ba ñu nekk ba ñu ba ñu nekk ay salariés tey. Mhm. les embauches même sax naa ko parce que defe naa deux rek lañ si embauché wu. si 15 léegi da nga doon wax waxu pêche léegi ma bëggoon xam euh, quelle est la position de seen mouvement de seen euh, parti. euh, sur les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne macha allah xam nga nag ñun suñu borom dafa ñu booleek benn leader boo xamante ni c'est un visionnaire parce que Sénégal xam nga il faut que nag ñu imposer les technocrates ñëw jiite réew mi mhm. c'est-à-dire euh, euh, programme bi le président Boubacar teg muy le programme tabax. Mhm. pêche yi li ñu ci am Euh, xam nga moom déjà dafa nekkoon euh, soldat. Euh, de l'économie. voilà mm -hmm. ça veut dire jaar na marine. Mm -hmm. alors ça veut dire il maîtrise bien le prés euh, le président Boubacar Camara tey jii bu ko tegoon ci réew bi yii yëpp dootu ko fi gisati. ci affaire pêche. non seulement am nañ si ah. gis nga ma ne politiciens yàgg nañoo dig loolu bu ngeen ñu. waaw je vais vous dire que vous avez parlé de politicien. Mm -hmm. politicien et ah, politicien les hommes politiques quoi. Mhm. politicien et politicien dafa am xam nga olof la ñuy làq moo tax ñu naan politicien. voilà mhm. je veux juste dire que foofu damay taxaw Fabienne parce que politicien et politicien dafa am. Mhm. va ah, ci sa bu pensée. oui ba déroulé. voilà c'est-à-dire politicien c'est-à-dire bu waxee loolu rek damay jëngatu parce que. absolument je sais que en ce moment euh, po ay politiciens ñoo nekk ci réew mi. Euh, li ko wane rek mooy bërki démb li nga gis lu rëy li nga xam ne moo dal suñu jeunesse bi. c'est vraiment déplorable ma chère c'est déplorable euh, ñi fi nekkoon dañu nekk ay politiciens ñoo nekkaat ni ay politiciens jaxasoo ça veut dire que depuis Abdou Diouf depuis Ablaye wadd depuis Macky Sall AFP PIT soo xoolee tey ñoom ñoo ànd PS mm. mm. ñoom ñoo ànd tey ñoo ànd tey euh, gis a ci benn technocrate dugg fi et c' était depuis 60 ans ñu pare ba ñu pare si indépendance ba ñu amee indépendance ba léegi lan nga gis c' est vrai que am na yoo xam ne jot nañ ko fi def mais il il faut que ñu changer moment bi ñu toll. Mhm. jël réew mi teg ko ci bopp ay technocrates ñi nga xamante ne dara taxu leen jóg lu dul le mhm. développement de notre pays. 60 mhm. ans bëri na mon cher. 60 ans bëri na il faut que ça change. loolu moo ñu indi tey ñu ñafe pour imposer suñu imposer wuñu sax imposer suñu bopp la ñuy def imposer wuñu population suñu bopp la ñuy imposer pour que population bi gën a réfléchir mhm. xoolaat bu baax a baax naka la ñuy def pour teg ci buntu réew mi mhm. suñu président Boubacar Camara mu ñëw doxal technocrates yi yàgg nañ dugal seen loxo ci doxalinu euh, réew mi su ma jëlee sax exemple seen leader di Boubacar Camara ñëpp xam nañ ni comme ni nga ko waxee euh, ku yàgg liggéeyal euh, réew mi la nekkoon na nekk na ci yeneen entreprise kon ñoom yàgg nañ dugal seen loxo ci doxalinu réew mi lan moo tax résultat yi ba léegi su wéy taxawal le président Boubacar Camara bi mu nekkee ci biir administration la nekkoon mhm. il de la politique mhm. et la politique bi mu nammee juróom-ñetti at Fabienne mm-hmm. moomu la bàyyi si retraite mm-hmm. taxaw nag ne le Sénégal tout donné mm-hmm. le diggante le président Boubacar ak Sénégal dafa mel ne yaay ak doom yaay bi nga jur doom bi nga jur nàmpal ko tette ko jëmale ko fépp ba tey jii mu màgg warul wan ginnaaw yaayam yaayam mooy kan le Sénégal le Sénégal lui a tout donné école publique la jàngee da ngay dégg mu naan ndox yi ma doon paccax-paccaxee yenoon doon paccax paccaxee ba ma nekkee xale ba léegi si laay paccax paccaxee ça veut dire que Grand Yoff n'a pas évolué ak yeneen ak yeneen ak mm-hmm. yeneen loolu moo ko dugal tey mu dugg ci làngum politique mu tax mu bàyyi lépp retraite neex na mm-hmm. liggéey ñu lay fay chaque weer neex na mm-hmm. il a tout laissé et huit ans du ñaar du benn at du ñaari at dem nag créer mouvement am il faut qu'on me éclaircir que le président Boubacar Fabienne jogul jóg rek ñëw dugg ci biir parti il un mouvement boo xamante ne mouvement Y la et ça c'était pour accompagner la jeunesse sénégalaise mhm. Mhm. il a fait le maillage de notre pays voilà mhm. dem fu si nekk moo tax mu xam dëkk dëkkaat yeeg fu ne le président am na fa commune yeeg fu si nekk jàppale fa nag nit ñi et dans la discrétion léegi si immigration euh, irrégulière bi xam nga il faut que ñu ñëw ci en tant que mère de famille yow lan mooy sa regard si euh, l'immigration irrégulière et le sort de nos enfants qui meurent en mer. ma chérie euh, euh, dama nekkoon ci xam soo tuddee sama sama président dama xam. Mhm. li nekk ci xolam ak li mu yéene Sénégalais yi. Mhm. mën naa cee yeggale tuuti rek. Mhm. egsi ndax li nga ma wax lu am solo je veux juste expliquer à monsieur la Lassana. que naka la def ba yegg si fii tey jóge ci mouvement bi nag si la jógee ci mouvement euh, def maillage du pays xam fii métti xam nga Sénégal dafa mel ne mag boo xamante ne dafa feebar foo laal rek mu ngi metti mhm. ba mu defee loolu organiser nag les jeunes am benn femme boo xam ne Awa Ndiaye moo nekkoon ca tête ba euh, monsieur Ngom euh, nekk vice-président ba ñuy liggéey liggéey bu mucc ay ba tey ñu egg si fii organiser les jeunes mhm. xam fa ñu bëgg teg seen tànk parce que moom jeunesse ak jigéen ñoom ñoo ko mhm. soxal ak i mag mhm. alors bi loolu passé si la si nga ñu gis ñu dugg ci langum politique bi mhm. gis nga ni ñu bloqué ci parrainage bi mhm. parce que xam nañ ses mhm. capacités mais justement man loolu moo ma jaaxal yàgg naa suivre les les activités de la génération mhm. Y ndax man mii di wax ak yow yàgg naa ah, def seen i seen spot bu ñu daan dem defi maillage ci euh, territoire national bi ngeen juge fa am vraiment représentativité bu ñu ko mën a waxee noonu ngeen ñëw dugg ci euh, politique bi bëgg a dagan baatu askan wi parrainage sax mosoo leen mënoo leen ko am xanaa gars dañ leen a xamul wala nu mais yow parrainage ñun ñu bloqué leen dama ne la réew mi ni muy doxee mu mel ne màgget boo xamante ne foo laal mi ngi metti mhm. am na ku gis nag sa euh, sa ndono di ñëw danga koy bloqué mais ñun dañu ànd ak yàlla mhm. parce que xam nañ ne yëf yi si ñun lay mujj dañu gëm yàlla bloqué nañ ñu bloqué nañ ñu mais c'est pas euh, dañu bloqué mais teewul xam nañ sunu valeur xam nañ suñu gëdd parce ñun sunu euh, le président Boubacar ce qu'il est en train de faire même les autres pays voisins mhm. ñi ngi ci wax ñi ngi gis des résultats mi ngi redresser ay réew mhm. tubaarkàlla si loolu la ñu dem ànd ak le président Sonko loolu moo indi ko Sonko président bi parce qu'il fallait que ñu choisir le camp euh, euh, Idy 2019 wala fale mhm. ñun nag ñun moo nekk suñu njiit nekk suñu leader mais daf ñu jox cër Fabienne comité directeur la dem woote ñoom ñoo choisir ñoom ñoo def vote Ousmane Sonko la président daal di gagné. Hmm. loolu moo ñu indi xam nga bu fekkoon leneen moo ñu intéressé dañuy dem faneen ah ça je ne vous le cache pas mais ñun ak Sonko ñoo bokk xëy na vision ak fa ñu jëm. Hmm. loolu moo tax il faut qu'on évolue. oui donc parce que heure bi dafa gaaw. Hmm. te bëgguma nga ñëw fi ba pare. Euh, te doo wax euh, li nga xamante ne euh, moom nga war a wax ak man question yi nga xamante ne moom laa pare pour laaj la. dama la laajoon en tant que mère de famille. quel était votre regard sur l'immigration clandestine irrégulière ak yooyu. mais mën naa ko def en deux questions. léegi dama bëggoon comme posé woon naa la loolu léegi yow lan ngeen xalaat ci seen réseau yan action ngeen def pour freiner ce ce drame. voilà en tant que mère de famille Fabienne ça fait mal de voir les enfants dem kii jóg di dem fi nga mhm. juddoo fi nga yaroo fi nga màggee wax fi tekkee soo sañoon foofu ngay toog mhm. mais soo gisee da ngay gis ne euh, euh, risque loo dem di def risque rek y'a problème ça veut que soit naa egg soit naa dee mhm. xamoon nañ ko ah? c'est déplorable ci jeunesse boo xamante ni ñu ngi gis loolu ne ñu ngi dem maa ngi wax benn nit sax mu ngi ma naan Fabienne dafa invité woon koo xamante ne dafa jooy ba sonn mhm. macha allah. Mhm. nit ñi gis ne au moins am nga parce que yaay nga am na li la métti ñi ngi jooy rek ah euh, c'est déplorable loolu bu ñu amoon bu ñu faxe woon wàññi lu bëri loo xamante ne par exemple euh, euh, comme le président Boubacar li mu wax ne bis bu mhm. yoroon réew mi loolu lay lu mel ne conseil économique et social quinze personnes ñoo fay nekk feneen ak feneen vingt cinq personnes yooyu nga jéem a fexe ba yaxanal mhm. fexe ba ñu am ci réew mi loo xam ne xale yi ñoom ñooy suñu avenir de demain mhm. ça fait mal bëgguñu ñu dem feneen mais on a pas le choix bon ñun pour revenir si li nga ne suñu réseau li ñuy def Fabienne pour te dire que fayeekuwuma benn xale pour ñu ñëw def ci formation à l'institut de management et de Dakar de Dakar parce que le réseau est en ligne leneen lu may def xëy na man maa koy indi foofu pour mu rapporter leen mais pour ces jeunes je suis en train de chercher et je tends la la main à à à tous mes partenaires yi nga xam ñu ngi may seetaan bëgguma wax parce que ñu ngi may jàppale ñu ngi may jàppale bu baax te jeunes filles yooyu déjà maa ngi classé na cinquante jeunes filles yoo xamante ne c'était depuis deux mois avant lii di am pour inscrire leen ñu defal leen formation góor sax mhm. nee naa dañ ko siy dugal léegi parce que bu fekkee am nga si loo jàpp lu mu ndaw ndaw jéem a dugal ci xale bi civisme ak citoyenneté mhm. ak mhm. jom fulla ngox muy liggéey fexe ba xamante euh, ñun réseau bi lu ñuy def même bu ñu la utalee pour nga liggéey duñu fa yem même bu ñu lay defal formation duñu fa yem sa waajur danañ ko xam dañ si impliqué jeune fille ba mu baax ñu xam ne man par exemple maa ngi nuyu Sadio Dramé bi nga xamante ne passage moom laa bàyyi euh, foofu noonu euh, dafa bokkoon si premier session bi ñu doon defee formation gis naa ko attitude ak jikkoom ay waajuram yaayam ak papaam dénk ma ko damay veiller si moom mm-hmm. di inculquer si moom ay valeur yu am solo mm-hmm. su paree ba mu gën a formé wu jël ko mu dem liggéey liggéeyam mm. dañ lay suivre ñu suivi boobu la ñuy dem. donc ñu ngi xeex côté boobu yéen ngi xeex pour ñoom. léegi est-il vrai que ce leader Boubacar Camara a eu une, une audience avec le président Macky Sall euh, est-ce que da ngeen di rejoindre la mouvance présidentielle. évidemment euh, am na audience ak le président de la République Macky Sall parce que Fabienne boo seetloo moment bi mbas mi di am le président de la République wax dëgg yàlla dafa def appel. à tous les leaders de l'opposition ñu ñëw waxtaan bi mu waxtaanee boo seetloo sax man am na boo xam ne def naa ko ci Revocap def benn vidéo de sensibilisation comme quoi mon mon leader avait dit que nañu euh, jàppale moment bi jàppale la ñu war a def le président de la République parce que loolu mooy yoon kenn waru wax parti kenn waru wax leneen ak leneen ak leneen pendant ce temps mon leader était à l'étranger en train de yi ñu soxla ko loolu muy liggéey fekk ko fi mais mm-hmm. teewul fekk ko fi waaye Fabienne macha allah vidéo yi mu def si tumbi 19 33 mesures yi mu génne 28 mesures yi moom la euh, gouvernement bi jël moom la ñu appliqué ba ci mille milliards yi ngay dégg si ñun la génnee loolu moom kenn du ko naatable moom Camara moom moo def loolu toog fa nag benn par benn wax ko ci soninke wax ko ci tukulër wax ko ci wolof vraiment Sénégal seet xam nañ ne nekku fi woon mais xolam ak xelam ak xalaatam e yàlla moo ko suturaal dimbali ko parce que dafa nekkoon foofu leneen mënoon na ko dal mais suñu borom laaw lu baax rek lay def ak lu rafet mhm. suñu borom nag indi ko président euh, Macky Sall xam na kan mooy le président Boubacar Camara mais moom moo demandé pour gis ko moom itam mosoo leen ko gis yenn yi mu di si dugg mhm. respecté nit la def te le président Boubacar Camara donne toujours des solutions mhm. absolument mosul dugg vraiment si ay xas nit ak ñun ñun euh, éduqué wuñu noonu mhm. formé wuñu noonu te loolu duñu ko def parce que ñun am na leneen lu ñu bëgg sénégalais yi dañu sonn solution nga leen di indil ñu xam ne kii am na lu mu ñu mën a. Hmm. waaye tooguñu di xas kenn baa ñu toog du critiquer hmm. rek vraiment hmm. on ne critique pas rek parce qu'on a envie de critiquer. et puis bokkul si ñun. dama bëggoon aussi ñëw. ci euh, bi ngay dugg ci politique bi. lan moo tax yow nga choisir ko moom. parce que man dama def benn enquête bu ndaw balaa euh, may kii si moom ñu ne ma kooku lu baax rek la mën a am. kooku euh, li mu yéene Sénégal ñaane leen ko gudd fan ak wér gu yaram. ma ne nit ki mais lu tax nga may wax loolu mu ne ma kooku ba muy tabax ba muy jëndal yaayam kër boobu moom amul këru boppam Fab yéen yaa ngi may euh, je vais pas gâter mon émission mm. pour parler sur le président Boubacar Camara un grand homme li nga ma njëkka laaj dafa ma yëngal je serai très fort pour wax ak yow mm-hmm. parce que bi may ñëw ci la président Boubacar Camara j'ai entendu du n'importe quoi mm-hmm. boobu mënoon naa dem ànd ak mouvance télé lay waxee présidentielle bi fi nekk mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen j'ai tourné le dos ci les politiciens ma ne sama réseau bi maa ngi ci am yàlla bu koor bi jotee maa ngi joxe ay dons maa ngi joxe ay téere alxuraan maa ngi dem si jàkka yi maa ngi dem si jumaa yi et j'aide les femmes et dans la discrétion lu bëri sax sama famille duñ ko xam parce que euh, je sais que yàlla moo ma nattoo may jàppale nit yi. Mhm. nit ñi di ma jàppale. mais bi ma ñëwee waxee ne damay ñëw à travers un grand homme moo tax ma xam ko tey waxuma sax valeur yi ma xam si ñoom mais dafa metti woon man ñëw naa nit def audience boo xam ne dama waroon gisante ak nit ku ma bëgg ku ku ma bëgg ma avancer mais il n'avait pas compris c'est dommage que je voudrais être avec le président Boubacar Camara ndax ay valeur ak yu ma gis si moom man je suis une femme boo xamante ne HLM laa dëkk maa ngi nuyu passage si euh, waa HLM ñoom Jibi njaay Adama mm-hmm. Anne et truc que man Fabienne kenn du ma kenn du ma influencé man da nga may convaincre c'est vrai que ki ma ci dugal dafa yàgg wax dugal ci Boubacar dugal dugal def defar ma ni ko man danga may def ndànk tekki-tekk gis nga bi ma waree dugg dama dugg parce que j'ai fait des recherches sur lui li nga ma wax nii dafa ma yëngal parce que yaayam dafa toog mu ne damay suivre tax si si si si si si documentation bi ma doon def j'ai entendu sa maman dire que Boubacar euh, su ma ko nee sax weer laa bëgg te weer ku ne xam ne ne kenn mënu koo indi dina ne ma yaay ahankay bu subaa dinaa la indil weer ça veut tout dire mm-hmm. man duma ànd kenn koo xam ne amuloo ngërëmu waajur mm-hmm. amuloo mu yaay parce que doo tardé tardel ma mhm. et j'ai pas mhm. bu may ànd ak yow loolu laay njëkk xool si yow bu ma la ko mënul laaj danaa def samay recherche bopp et muy ñii ma xam ne ñoo ko entouré ñëpp daf ma leer ne noonu la ñu mel mais Boubacar kenn du moom Camara sama président bi nga xamante ne tubaarkàlla dama koy ñaanal mu toog fii si kalamu bopp réew mi bu boobaa ñu xam ne lépp dëgg la coalition tabax bi ci kaw rek la ñu koy dégg. Mhm. parce que dafa yàgg def lu baax yàgg des fois ma toog si groupement de femmes yi ñu ne ma sa leader mus na ma may lii sa leader et man ak yow bu ñu àndoon tey muy sekk ak yow dara. Mhm. Fabienne da ngay jommi un grand homme su ma la waxul yow li ma sekk ak moom moom du ko xam te ku si nekk ak sa soxla. Mhm. néew di doole yi juma je peux même pas expliquer mais je sais que sa famille. papaam dem naa Fatick fekk ko fa. papaam boo ko nee Boubacar mi ngi ñëw dafay jóg defaruwaat. sañse ba jekk ça fait plaisir d'être euh, à côté de ces genre de personnes mhm. te saa bu waxee ak yow rek mi ngi la formé saa bu waxee ak yow mi ngi la formé mhm. fonk jigéen surtout mhm. jigéenu parteem daf leen fonk daf leen cëral te ku si ne mi ngi am na relation bu mu sëkk ak yow ku si nekk ak mhm. relation bi mu am ak yéen mhm. du ma ne je la présidente nationale des femmes rek li mu sekk ak man sekk ko keneen mhm. des fois mu sekk ak keneen loo xam ne sekk ko ak man parce que les relations diffèrent mais macha allah booy wër ku baax booy wër ku gore booy wër ku correct booy wut ku mën a dimbali nit booy wut nit bu maanu bu loxoom set te nous en avons besoin actuellement. absolument moo tax ma doon ñëw si loolu. voilà parce que nit yu bëri bëggatuñu léegi dugg si politique. parce que euh, li nga wax nii dafa raar te man dama laajte ñu wax ma. Mhm. parce que munoo def émission. di invité euh, une dame boo xamante ne si moom la nekk. Oui. te naam sax du dem laajte def investigation. Oui. parce que man du ma journaliste d'investigation. Oui. mais euh, di nga am looy looy laaj ci parti bi nga xamante ne moom la teg et gis nañu aussi. Euh, euh, son parcours enrichissant mooy li ngay wax ñun dañu bëgg euh, wóolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yore ay parti war ñu jiite bu ëllëgee dafa am ay qualité yoo xamante ne dañ ko bëgg gis ci ñoom non seulement doo dox ci mbedd bi gis ko et man am na ay nit yu bëri yoo xamante ne nee nañ ma que moom moo leen dimbali dans la discrétion te tegu leen bët donc et puis surtout les valeurs parce que kaay ma wax la mënuloo bëgg sa doom te bëggoo doomu jàmbur. voilà man balaa may bëgg damay bëgg laasana balaa may bëgg sama doom parce que loolu la yàlla santaane consa consem mais euh, euh, munoo par exemple bëgg a jiite réew mi. ba pare yow bu guddee ñu gis la ci ay lieux yoo xamante ne peu fréquentable xam nga. Mhm. peu fréquentable euh, yow defoo dara pour sa dëkk ba pare nga bëgg ko kii c'est-à-dire nit ñi dañuy xool léegi jikko yi ñu la ñuy inculquer nit ñi. Mhm. parce que kenn dofatul léegi ngay jël euh, sa temps di ko bàyyi di nekk si gannaawu benn nit donc moralité boobu man kenn saxalu ma suuka defe naa mosoon nañ ko fi invité benn yoon ci benn émission fii donc man euh, jeune ne nekk du ma nit boo xam ne damay tër bii wu benn nit di wax ay kii mais dafa am ay yëf yoo xamante ne man quand on m'a parlé de lui j'ai eu la chair de poule mu may fàttaliku nekk benn nit boo xam ne xëj na bugguma wax waxam fii moo tax ma ne woon loolu il faut ma laaj la ko parce que ñun dañu dépassé fi ñuy tàccoo nit. oui tàccu nit ci boppam te dañu xam ne ne aussi kuñ fi jàppalewul laasana doo dem. Mhm. buñ ñu bëggee fonto aussi ñu bàyyi leen fi samp jigéen. oui te bu boobaa jigéen bi mooy mooy am li mu bëgg am. Mhm. donc moo tax c'était important. que ma que ma ñëwaat si loolu parce que yenn saa dañuy def émission. Euh, di latte euh, benn nit boo xam ne ci partie la nekk. Mhm. te fekk yenn saay du xam sax président am du am mhm. temps. loolu am na fi. Mhm. donc pourquoi aller croire sur une personne boo xamante ne miser sa sa temps sur une personne boo xamante ne laasana doo ko gis. yoo xam nga ne 2S bi bu añ jotee ñu ñëppay dem ak añi ci bureau. Euh, madame Ndiaye monsieur Ndiaye xam nga ndax booli euh, euh, moo fii ñëw man itam loolu laa déggee lu baax si madame Ndiaye dëgg la ni mu leen bëggee yéen ñi liggéey ak ñu léegi yéen la gën a bëgg ay njabootam loolu de la mais madame Ndiaye réputation bi mu am ci Sénégal tubaarkalla ah loolu de c'est vrai li ñuy wax ne moom la dund caméraman bee diree moom la dund li ñuy wax ne wax dëgg yàlla derrière toujours euh, un grand homme y a une mm. mm-hmm. man itam damay wax fii tey derrière une grande dame il y a mhm. vraiment un grand homme mhm. Mhm. Euh, à côté ça veut dire que le président Boubacar du koy euh, jikko xam nga ñun dañoo amee njaboot soo nee da nga bàyyi politique ba ñëwaat di dugg ci liggéey ku mel ak mel ne ak moom euh, duñu wax dara si moom loo xamante ne di nga sëgg wala nga ne àccam da nga am itam ay waajur yoo xam ne dañu am valeur yu ñu def si yow bëgguloo kenn yàq ko bu njëkk dañ daan wax ne jigéen dafay dem politique ku dem di def politique baaxoo mën nga toog di def ak ñoom réunion ba deux heures du matin fulla ak fayda si recevoir ay audience mhm. boo paree ñu yóbbu la ba sa kër mhm. gunge la ba nga yegg nga dem dugg sa kër mhm. sa famille dañu koy xam dañuy xam ki ngay nekkal man saa su ne bi ma nee capp duggante ak moom sama waajur dañu ko xam parce que nag du ma dox si caaxaan duma ma dox si ñàkk fulla waaye du ma ànd ak kenn koo xamante ne damay dend ak moom ci politique muy def naka su dul noonu ñu naan ñi ngi ko gis fële suba ca baax ba ñu naan ko ma ngay def lii ma ngay def laa ça nous avons la chance quand même. Ah, ma chérie soxlawuñu loolu. parce mm-hmm. que bëgguma sama doom di ne ma yaa ngi tax tardé si koo xamante ne vraiment in ne vaut pas la peine. Mm-hmm. ki may àndal il vraiment la peine nit la. Mm-hmm. koo xamante ne yar nañ ko fan ko war a yaree. kal la si doxin gu am solo am vision nag si Sénégal. am yéene si jigéenu Sénégal. absolument am na loo xam ne daf ko def spécial mënuma la wax mhm. programme le président Boubacar mais yàlla nañu fi déegi bàyyi mhm. yàlla may ñu gudd fan ak wér gi yaram mhm. teg ko nag si suñu buntu euh, kaw réew bu boobaa euh, bu nga xam ne da ngeen koo tabax ndax euh, ñëpp xam nañu yéen ak Sonko yéen a doon ànd ci coalition uh-huh. jot na uh-huh. fan yi ngeen génn nag uh-huh. tracer seen bopp seen voie mais contexte bi mu amee moo xaw a ëlëm xeluñu bari ndax contexte audience la dañoo dégg ah, ni voilà dafa président Macky Sall yàggul dara ñu ne Boubacar Camara génn na ci coalition jot na taxawal na coalition bu beesam lan moo tax tey ji ngeen génn coalition boobu taxawal seen bosu bopp. jàmm jàmm bu sedd guy moom lañu am ñoon waa PCS jëngu tabax ak coalition jot na. Mhm. Ousmane Sonko dañu ko xool waroon a ànd ak moom ànd dañu toll moment bi ñun ñu nekk suñu ginnaaw. Covid bi rek euh, Fabienne je peux même pas mhm. Covid bi li ñu jot ci ay nit yoo xamante ne du ñu ñëw. par téléphone. même Covid bi 7000 entreprises yu tëj. ah mille entreprises yu tëj solon la l'ANSD. waaw moom laa wax dama hmm. ne. Eh, li nga ma wax si ne si affaire. Hmm. coalition jot na ma bëgg ko leeral hmm. c'est-à-dire voilà. dama la bëgg wax que ne nit ñi gis nañ loolu teewul ñu ngi doon ñëw si sunu parti. dañu dem nag ba toll foo xamante ne amuñu lenn ndax bi ñu ñëwee coalition jot na jox nañ ñu sunu cër ba si jigéen bi euh, ba si jigéen bi may mun a jéey. ba si jigéen bi may mun a jéey lépp lu muy def si jigéen dañu jox suñu cër bu mat sëkk amuñu fa xaar ma yàlla ak kenn mais nit dafay toll foo xamante ne yére yi ngay sol sax daf lay xat bu xatee foog nga uti utiwaat mmh. dañu am nit ñu bëri ñoo xamante ne dañu ñëw ànd ak ñun te ñun gis nañ ne Sénégal suñu programme tabax bi faaw ñu imposer ko teg ko liggéey ci ak sénégalais yi jàppale nañ ñu si mmh. je peux pas ku nekk mu ngi ñëw wallahi yàlla zib mmh. d'ici sous peu de temps di nga gis tabax Sénégal dafa soxlawaat ñu tabax ko loolu moo tax coalition tabax tam mi ngi dem de day dem de. Mhm. coalition tabax dafay dem. bi mhm. Omar Pène di wooy naan damaa bëgg a tabax ma ni suñu coalition tabax bi tubax tubaxkal la. Mhm. macha allah yéen ngi jéem a natt seen doole. ci non non fi ñu toll nii. sénégalais yi ñoom ñoo ñu wóolu. sur le terrain non sénégalais yi ñoom ñoo ñu wóolu. ba démb ba ki démb yaa ngi gis. ñaata membre ngeen am ñi ngi dem suñu montage comité comment. ñaata membre ngeen am. ñaata membre la ñu waaw. doo ko mën a répéter ak exactitude wax ma la loolu dañu ah. bari ma ne la sama sama sama sama sama président di nga ko dégg waaw di nga ko dégg d'ici trois jours incha allah d'ici une semaine di nga ko dégg te bu déggee di nga xam ne gaynde wax wax na dafa war a def sortie bu mag ma ni mhm. du benn rek mhm. mhm. la ngeen di waajal ah li ñuy waajal xëy na wax ñu ko parce que dañu am si suñu kalam euh, euh, donc euh, élection mairie municipale ñu am députation bu war a ñëw présidentielle war a ñëw ñun dañu war a def lu ñu war def Sénégal ñoom ñoo ñu soxla. Mhm. ñoom ñoo ne am na visage yoo xam ne bëggatuñ ko kalamu Boubacar Camara la ñu bëgg ak ñi mu àndal. Mhm. te ay de grandes personnes des personne de valeur di mouvement ay nit ñu ñu ñu am expérience. Mhm. fii ba diaspora maa ngi nuyu euh, au passage yéen ni yéen i Manel Fall tubaarkàlla liggéey bu rafet bi nga nekkee foofu ñu ngi la ci sant di ci gërëm ma ne la. ñooñu ñëpp dañu àndandoo. Mhm. ne Boubacar yaa ñu doy ci jéngu ci ci ci coalition tabax. coalition mhm. mhm. coalition tabax rek. mais est-ce que a ngi am ay nit yu bees comme ni la ko Laasana waxee est-ce que am ngeen ay. mais loolu laa nit yu bees yoo xamante ni ñu ngi ñëw. Euh, euh, ay jeunes wala ay nit de euh, personnes de ressources parce que quand on sait que mm. dans un parti il faut des personnes de ressources mm. des nit ay nit yoo xamante ni ñu ñemee terrain aussi parce que moom si Camara ni ma ko déggee ñu koy wax noonu c'est quelqu'un d'assez rigoureux oui dans le travail. Dans sinon kon du réussir lu muy lu mu réussir noonu daal donc est-ce que euh, am na ay nit yoo xam ne ñu ngi ñëw. des personnes ressources yoo. xamante ne am ngeen même vision am na même vision que que yéen daal pour. Euh, tabax Sénégal moo tax moo ma ne la. Mhm. d'ici trois jours d'ici une semaine. incha allah lu bëri dina feeñ incha allah. Mhm. ba ki dem dama def émission ak ay jeunes yoo xam ne jeunes kese. de mhm. Goudiri. j'ai pleuré parce que dama ne xamuñu ma. xamuñu le secretaire général Mor Ndiaye. xamuñu président Boubacar Camara et c'était émouvant ci da ngay dégg ay jeunes lenn rek moom la ma wax ne ma dama commencé ñu may attaqué ma ne ko nag man kenn du dugg ak man ci politique naan ma ay dañ ma attaqué mbéjum kalam jeune nga yaa koy fajal sa bopp. Mm. ñuy ñafeel seen bopp. Mm-hmm. ñu ngi si ñaata membre ci ay département département di Adama Anne waa Awuré ci peux même pas comprendre ay Ibrahima Ngom. ay Sevin Fallou mais ci macha allah. d'accord euh, euh, nit ñi ñëw nii waxuma la nag nit yi ñëw nii kenn dong laa ciy wax. Mm-hmm. mu Yelli Manel Fall ma ca Suède ba ca Oslo. Mm-hmm. Ah, kooku mm-hmm. defe naa ne ku ko déggul aussi war nga ko xam. ñeneen ñi si biir nag duma ko wax. fi mu ne nii coalition tabax mooy bomb Sénégal. man day awa jéem a ko wax. léegi euh, Lassana il faut ñu ñëw ci. Euh, kiiwu jigéen ñi comme dafa leen di dimbali. parce que mhm. man bi may préparé émission bi ak moom mu may woo nekk elle avait une réunion avec les femmes am na ñoo xam ne da leen di jàngal pour transformatrice pour ñu mën a xam. Mhm. nan la ñuy euh, la ñuy mënalee seen bopp mu am euh, dépendance. Mhm. indépendante financière. wax ñu tuuti si si ñooñu parce que li ñuy des si heure bi. waaw foofu maa ngi fay nuyu sama benn doyen. Euh, maman Germaine Dieye ak euh, maman Naomi seen yi nga xamante ne tubaxkàlla euh, ak Ndeye Diagne doy si puisque ca ca ca Mbour ñooñu dañ may jàppale xam nga chance bi ma am Fabienne mhm. mooy nit ñi dañuy ñëw di ma jàppale mhm. formation ma wax leen a fay xaalis bu bari ñu parce que am na lu ma sekk ak ñoom wala am na estime bu ñu am ci man mhm. du tey nag dinaa leen jox waaye dama ne la espace bi ñu am il faut nga ñëw fa ma invité la ah, nga xool wala nga dugg page suñu page Facebook réseau des femmes mm-hmm. pour la solidarité et l'entraide je, je suis très fière ak euh, madame euh, Mbengue Mbengue bi nga xam ne moom mooy trésorière bi mm-hmm. secretaire général bi nekk Maguette Diop Maguette Diop moo nekkoon pour vous dire que réseau bi macha allah Pape Gorgui Ndong ministère de la jeunesse mm-hmm. moom moo nekkoon euh, secrétaire am ni ñu leen di dimbalee dañ leen di organiser mais nag bu ñuy former du ñu bëgg jël ay femmes yu bari dañuy soxla jël quinze femmes mm-hmm. am na nag ñoo xam ne dañuy fay mm-hmm. parce que foofu ngay jëlee pause café boo ñëwee rek da ngay jubal dem ndékki mm-hmm. ah sol sa sa sa tenue añ bi aussi ñoom ñoo la koy defal des fois ambiance bi dafay neex ba nga xam ne Fabienne ñoom ñooy toggantu ci seen biir cest à boo fa nekkee nekk jigéen non seulement di nga xam di nga autonome di nga bëgg euh, opérationnel di nga bëgg Euh, bëgg li ngay def sa kër sax li ñu fay def euh, doo am problème mu ay toggantu ak yooyu mais daañ la indi daañ la yee parce que même boo jàngul dara. Mm-hmm. boo fa ñëwee yaa un certain monsieur Ndiaye boo xamante ne daf may jàppale si alphabétisation monsieur mbay di ma jàppal si leadership aussi. Mm-hmm. macha allah ñu restauration bi tubarkalla dañ leen di fay. Mm-hmm. am suñu équipement yépp nag maa ñafe maa ko ñafe. organiser yooyu dafa metti mhm. parce que yow doo sax toog am temps toog mhm. yow yaay dem yëpp parce que doo bëgg kenn kenn kenn mais maa ngi remercier partenaire yi am na ambassadeur boo xamante ne mi ngi soog a ñëw Sénégal toog bëgguma wax je veux pas parler absolument ñoo xamante ne ñu ngi may jàppale mhm. des chefs religieux yoo xam ne ni ngi may jàppale ñoo xamante ne ñoo ngi nag fii nag ci gouvernement bi nekk nag vraiment ministère de la santé il faut que ma tudd ko parce que dañu ma jàppale macha allah jàppale nañ ma te mënoon nañ xool lii xool lii xool laa mhm. au moins sa j'ose le dire il faut être honnête seen rôle la ñu def seen rôle la ñu def mais mënoon nañ def leneen c'est-à-dire nit mhm. di nga ko teg fenn mhm. mu ne kii du ko jàppale kii du def lii kii du def laa ma fait yeneen ministères yi dañu war a suivre. dañu war a suivre comme euh, man moo tax bi ma gisee ñu reconduiraat euh, mm-hmm. euh, ministère Diouf Sarr ça m'a mm-hmm. fait plaisir ma bind lettre. pour mm-hmm. remercier ko parce que def na liggéeyam. mosuñu toog mosuñu gisante. mais damay wax li nga xam ne moo am. parce que tam doo ne ñëpp ñoo bonandoo. am na loo xam ne am na fii am na ñoo xam ne ñu ngi def am ministère yoo xamante ne suñ la xamee nii sax télé xam ne ci d'entre autre chose la faale. mais il a fait son wax dëgg yàlla ça quand même je tenais à le mu ngi lay dégg waaw léegi si tu as une question. ñu oh, ñu bëggoon naa ko rek xanaa ca waxal ah, benn affaire bu uh, ndaw mooy seen idéologie ndax mhm. d'habitude nit ñi bu ñuy dugg ci euh, politique dafa am mbir moo xamante ni moom moo leen ci euh, dugal am na ñoo xam ne exemple euh, coalition bi ngeen nekkoon Sonko par exemple ñëpp xam nañ ni Mamadou Dia lay lay topp am na ñeneen ñoo xam ne dañu la naan idéologie Senghor socialiste yi yéen mooy seen idéologie ak ndax seen réseau boobu noonu nga bokk du ngeen ko xaw a jël femme yu fa nekk xaw leen tuur ci parti waaw moom laa la wax lool bu fekkoon dañ koy politiquer ci télé laa nekk mhm. gis nga mbumba ni mu sore ay femmes xamuma leen te xam nañ ne maa ngi nekk ci président Boubacar mais xam nañ ne maa plus ci affaire développement dama ci nekk yàgg ci mhm. dañu def groupe boo xam ne dañ ma ne sax bul duggagum def ma rek at mi mais bul duggagum ne euh, wax ko ci pulaar ñi bëgg ndey awa mhm. sa à dire am na fu ma aw ak ñoom jamais je ne vais jamais faire ça maa ngi wax ci télévision et je veux pas que nit ñi di ma xoolee beneen non loolu ça c'est à part et c'était bien avant xëy na lii dafa ñëw rek touche bi mhm. te Boubacar Camara bu fekkoon dafa ñëw indi leneen politiciens yi fi nekkoon du ma ànd ak moom de mais ne kaay ma wax la lii laa na wax noonu xam nga lu tax mu wax ko parce que dafa gis ñu bëri ñoo xamante ne en général dañuy def lii pour mhm. kii mais moi je sais que que ça longtemps que nga nekk si Euh, non seulement et puis tamit dañu àgg fenn foo xamante ne laasana booy politique aussi dafa da nga war a euh, euh, dimbali mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo fi nekk parce que tu ne peux pas aller toi bien pimpante mm-hmm. aller mm-hmm. vers les les femmes ñoo xamante ne elles n'ont pas les moyens bu de de de fructifier ñoom seen seen seen liggéey et tout ça yow nga toog ba pare doo def dara moi je pense que la politique bu am euh, si c'est pas de la politique politicienne politique am na njëriñ te ñun ñëppay def politique surtout mhm. nous les femmes tu sais comment parce que fu yàqu dañ koy dem defari mhm. fu yàqu dañ koy def mhm. dem defari yàlla xam na ne man su ma paree sama émission yi ba ma saw sama ay carax am na feneen foo xam ne ne war naa pour lijjanti nii ak nii donc loolu mm-hmm. dafa am solo mm-hmm. euh, laasana social yooyu ngay def c'est important loolu moo tax xam mm-hmm. naa man dama lay suivre di peut-être ñu ngi soog a kii mais dama lay suivre di xool bu baax te c'est important tu pouvais bel et bien dire que nekkoon nga Miss Sénégal pare woon nga ci loolu mais je vu que danga nga imposer sa bopp ñëw wane leneen wax ne da nga bokk ci réew mi da nga ci war a dugal sa loxo c'est ça nous avons besoin des femmes te dinaa la wax leen de ay bu femme yi jógee. kii mhm. laa sana. révolution oh ah. solidarité féminine tubaarkàlla macha allah. ñu ngi mhm. togg loo xam ne yàlla na génn ak jàmm rek. amiin allah mais je sais que sama leader. idéologie mhm. euh, je sais que sama leader. dégg na idéologie waaw moom laa wax je ah. sais que sama leader. Euh, nekkoon na ci watu Cheikh Anta. je sais que ah, lu bari jël na ko ci moom. ça je l'ai senti. j'ai senti que. Euh, ma ne lii rek la mënoon demee parce que damay dugg nag ba ci biir. Mhm. xëy na sax am na chaque suba mënuma toog ci semaine bi te jëluma trois éléments yoo xam ne non. amuloo jàng Sénégal tubaarkàlla pour mu am ah da nga koo sopp. loolu c'est important. dama ko sopp moo tax su may wax si moom du ma ci am sago tu sais pourquoi du ci am sago ce que je dis dama ko dama koy sama xol lay génn. et moi quand je parle avec toi moi je badine pas. quand je parle avec toi di nga xam li may wax ak yow. dëgg ça les larmes aux yeux. voilà ah, nit ku baax la yéene naa ko Sénégal. gars yi nañu defar ba mu baax. ñu pousse jox ñu. Euh, euh, incha allah waa kon nag léegi euh, <laughs> le temps <laughs> imparti jeex na. léegi xanaa nga tàggoo que ñi la doon seetaan sa xarit yi. ak les membres du réseau. et surtout les les téléspectateurs de. c'est-à-dire de 2 moom laay moom njëkk a wax parce que. Euh, bëri nga torop ñu ne nit ñi la sopp euh, surtout émission bi bi ma bi ma ma jë envoyé bande annonce bi euh, c'était émouvant j'ai reçu tellement ay ñoo xam ne sax ay kilifa lañ mm. kilifa yoo xamante ne si diine laa wax dañ may ne dañuy toog di ko suivre j'ai j'ai tellement d'audio ñu may wax ne ma c'est une femme yoo xamante ne ay kii technique lay joxe c'est une femme euh, j'ai entendu beaucoup de choses de bonnes Merci vraiment sur vous Merci a été vraiment un plaisir de partager avec vous vraiment euh, su développement réew mi di nuyu nag sama waa réseau mm-hmm. réseau des femmes pour la solidarité et l'entraide di wax que ne waa Dior maa ngi ñëw samedi prochain foofu laa jëm euh, euh, waa Mbumba ñi nga xamante ne dañu ma sopp di ubbi group tax mm-hmm. xamuma leen mësuma leen gis maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm te bëgg boo gis yëg moo koy fay mm-hmm. waa HLM attention waa HLM ñi fa def groupe tuddee ma ko am lu ñu yéene ci man ak dem sama diggante man ak HLM xam nañ ma xam nañu maa ngi ñëw HLM. am na lu mag lu may may lu may préparé si euh, euh, coalition tabax mais sama waa parti jigéenu jàmbaar ya fa nekk sama président je l'admire beaucoup un grand homme un grand monsieur waaye nag dafa nekk dend ak koo xamante ni c'est monsieur Mor Ndiaye kooku itam sérieux cest dire li ma gis ni ni entouré mm-hmm. le président Boubacar Camara Pape Marsec les jeunes macha allah tubaarkàlla mag ñu am fulla comme ay bàjjan Ndeye Gueye kenn mësul gis loolu yàlla na yàlla def Sénégal jàmm def sutura vraiment un un un grand bisou à ma maman sama yaay mi ngi toog di jàkkaarloo ak man ak sama papa nu may suivre dafa mel ni xale bu ndaw laaj <laughs> avec ma grande sœur et ma famille kii moom vraiment mhm. appuyé ñoom ñoo tax ma jëm des fois ma dem ba benn heure mhm. mais mosuñu xalaat si man lu bon mosuñu xalaat si man lu ñaaw ça me fait plaisir. Mhm. et je veux même pas parler de ma famille. Mhm. et de mes enfants samay doom dañu ma jàppale. Mhm. ak sa ay xarit sama ay xarit. waaw munuma munuma ñooñu moom. dëgg la macha allah maa ngi gis téléphone bi mu ngi kii mais macha allah. dëgg la donc. Euh, kontaan naa euh, li voilà merci beaucoup madame Awa Dia. Euh, donc lii dama koy jóg kii si endroit wu le président Boubacar Camara. Mm. ñun ñu fi dégg ñu jigéen ñi nag xam nga dañu sincère. li li mu wax rek. Euh, euh, euh, doy na léegi lu ñu lay ñaanal rek mooy gudd fan ak wéegu yaram parce que xam nañu ne sa dundu am na njëriñ te soxla ñu ñu ay leader yu mel ni yow donc yàlla na la yàlla may xel ak dal ba nga xamante ne doo mën a décevoir sénégalais yi mais particulièrement les femmes les hommes qui sont mm-hmm. dans votre parti. Mm-hmm. xam na ñu lépp li ngay def pour Sénégal. Mm-hmm. donc su dund am na njëriñ mais may féliciter sa yaay bi nga xamante ne moom moo la jox weer boobu. avec tes parents c'est important. voilà et je pense que Kaffrine ou Fatick je sais pas. c'est Fatick Fatick. Euh, que toutes ces personnes yi nga xamante ne ñu ngi foofu aussi. ils sont fiers de vous. voilà donc euh, ñu dem jëli euh, def def benn petite pause dem jëli suñu deuxième invité. bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout se discute émission bi nga xamee ne sama chroniqueur préféré laa ci àndal muy monsieur Paco Jackson Thiam bonsoir. ñaari invité lañ leen indil en fait dañuy laal politique en même temps aussi ñu laal sport c'est normal actualité du moment la noonu la ñuy def dugal suñu première invité monsieur Faye bonsoir. suñu deuxième invité muy Badara Gadiaga mu nekk ci parti Rewmi monsieur Gadiaga bonsoir. équipe type équipe type boobu xam naa Aliou Cissé rek nga ko mën a laaj parce je pense que man boo ma ko laajee laaj ko beneen Sénégalais c'est la même chose ku la fi mën a génneel benn équipe ne la is xam nga dama lay expliquer benn affaire is xam nga ne depuis qu'il est là cinq ans ah. il fait du bon boulot mm-hmm. mais il fait amul ossature amul ossature xam nga ossature am sax mooy nee na xañ na Gana Gueye laa Kouyaté ñoom seen quatre-vingt-sept jours la essayé depuis bi mu fi nekkee ak léegi ça veut dire at bu jot dina essayé trente jours loolu kenn musul gis ci àdduna <laughs> c'est gauche xalaatuñu woon loolu en fait que Idy aujourd'hui tey dina dem ci non àdduna li e am àdduna présentement mhm. xam nga dañ ni c'est la situation qui crée l'exception même en religion mhm. maanaam gis nga même diine mhm. am na fu muy toll yàlla may la ay exception yoo xam ne kenn xalaatu ko woon avec euh, tout le respect que je mhm. mais Badara. Mhm. li nga may wax nii. Mhm. ay tiga dege la. day dugg fii di génne parce que man dama jàpp ni c'est plus un complot. que des raisons parce que mënu leen wax Covid. ñaa ñoo nga xam ne ñu ngi waxtaan depuis quinze mois. mbokk yeeg xarit yi seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen euh, sant. di am mbégte jàkkaarloog yéen seen émission femme africaine moderne. ma tëdd tëdd ba si yàgg sax ma ne ñii xale yi fan lañ ne ba heure bi ma jox dox ndànk ba géej ak géej ni mu soree ak ni mu leen demee. bi ma demee ndakate ñoom ñu ngi si yoonu dem. parce que bii moom baaxul moom ndax sama doom jooju amaloon la ma njariñ de ndax su école bu ubbi woon bu école tëjee nii dina dem xool chantier bi mu dem liggéeyi ñëw jàppale ma. bu ñu xamoon li lay fekk si géej duñ dem. man nii ba tey ji may waxaa yow dama ne damay dem. ba tey jii boo gisee gaal da ngay dem. man loolu laa décidé ba tey ji may waxaa yow. buur bi bu la ko woon sama loxo du ma dëppandi sa jag bi ba ñeneen ñi yéeg ay lébu lañ ñoom ñoo si dem alors ñu gaawantu yéeg bi ñu yéegee rek affaire bi commencé avancé rek ma gis ñeent commencé di dem. affaire bi nit yuy dem. voilà ndox bi dinañ yóbbu. ndox bi dinañ yóbbu affaire bi daf ma choc ma ne xale góor yi duñ leen yóbbu duñ leen jëli xale yu góor yi ne mu fii di ndox demal nga jëli leen yow fi bopp sa bopp. <laughs> bon voilà euh, ñu ngi recevoir euh, ñu ngi ci suñu deuxième émission euh, ci suñu deuxième partie wu émission voilà euh, avec beaucoup de joie ñu ngi reetaan di fo loolu c'est la 2S donc ñu ngi fii di recevoir euh, monsieur Abdoul Aziz Seck responsable APR à Rufisque chargé d'études et au ministère des pêches et de l'économie maritime monsieur Seck ñu ngi lay nuyu. merci Fabienne merci Alassana maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi téléspectateurs yu 2STV. Mhm. di nuyu aussi tous les responsables de l'APR du département de Rufisque de la commune de Bambilor de Kër Daouda Sarr plus précisément mon village natal et di nuyu aussi l'ensemble des membres de la convergence des cadres républicains dirigé par notre euh, frère et camarade Abdoulaye Diouf Sarr. d' accord euh, euh, damay ñëw ci kii bi xam nga loolu fu mu nekk ni mooy actualité accord de pêche yi gis nañu ne Sénégal ak Union européenne dañu dañu nar a gagné si 15 millions d' hmm. muy milliards de francs CFA sur 5 ans en contrepartie. de 10 000 tonnes de thon et 1 750 euh, tonnes de lu noir pour les navires européens. Euh, est-ce que loolu c'est pas une grande farce quand on que ñun mënatuñu sax am jën euh, Sénégal et que avec euh, li nga xamante ne moom moo xew ni xale yi mën a temps yële mënatuñu woon am jën ak feebar bi nga xamante ne moom moo am donc est-ce que xalaatuloo aussi que lii dina mën a aussi lëndëmal xel yi bu dul loolu aussi euh, information bu fausse bu ma am la et je ne pense pas est-ce que mën nga ñu leeral. merci en fait euh, ce que je peux dire par rapport aux aux accords de pêche euh, moi je crois que yaa a quand même une information bu nga xam ne. Euh, ñu ngi koy jox duñ ko doon joxe nit ñi en fait c'était pas la la bonne en tout cas information par rapport aux accords de pêche mm-hmm. euh, je vais peut-être euh, revenir un tout petit peu en arrière pour vous dire que euh, depuis 1979 le Sénégal mu ngi doon signé des accords de pêche avec l'Union européenne mm-hmm. jusqu'en 2006 ñu am ñu changé un tout petit peu les accords ba 2014 ñu changé euh, accords yi sur deux variétés maanaam deux deux deux espèces. Mmh. en l'occurrence le le thon et le merlu noir. mais ce qu'il faut comprendre euh, en 2014 pratiquement vous après la signature des accords on n'avait pas entendu des problèmes c'est-à-dire ay coow ci dëkk bi dañuy di wax accords yi affaire yi pourquoi c'est-à-dire cette question-là il faut la poser d'abord pour savoir le pourquoi. Mmh. Parce qu'il s'est trouvé que il y avait au, à, à l'époque, bien avant, il y avait toujours des, des problèmes, les accords. Vous vous rappelez, on parlait de premier round, deuxième round au Sénégal, du temps de l'ancien ministre Alassane Dialinga. Vous vous rappelez de ça Absolument. Mais on en se 2000, euh, très bien. Mais en 2014, euh, il y avait une certaine transparence par rapport à ça. Mm -hmm. Ce qui s'est passé, non seulement le ministère qui était en charge des question en voilà ministère bi nga xam ne moo yore woon mhm. moo yore woon wax ji euh, moo yore woon maanaam mbir mi pour dem négocier ji pour le compte du Sénégal mais bi muy dem demul en moom ministère bi kese mais dafa xool ñi nga xam ne ñu ngi gravité autour de de l'activité de la pêche maanaam les acteurs mu kenn ku ne ci fa ñu nekk ña leen représenté jiite leen ñu jël leen ànd ak ñoom ñu dem ci négociation yi mhm. loolu li mu permettre mooy ñoom ñu fekkee ces acteurs là fekke nañ parce que dañuy wax souvent ne lépp lu ñuy def pour yow te fekke woo ko ja da ngay jàpp ne dañ ko def contre yow mhm. alors ñoom comme fekke nañ gis nañ ni accord yi demee signé fekk nañ lépp bi ñu dellusee au contraire dañu vulgariser mais amul benn coow amul benn problème et moi je crois que ne loolu nga xam ne moom lañ signé woon en 2014 mais en 2019 bi ñu bi ñu ñëwee dañu renouveler waat cet accord la mais non seulement dafa am ay changement mais la ñu signé woon 2014 te amul coow mais li ñu signé nii sax mën nañu wax ne bu moo gën a avantage pour le Sénégal. Mm-hmm. d'autant plus que li nga xam ne moom lañ signé woon ci ci tonnage par exemple. c'était 14 000 tonnes mhm. au lieu de 10 000 que nous avons aujourd'hui mhm. la compensation financière dont vous parlez li ñu doon joxe euh, jël moment boobu avec 14 mille moo gën a néew que li nga xam ne moom la ñuy jël actuellement nii ak 10 mille tonnes ça veut dire 50 000 tonnes dont vous parlez pour 5 mhm. euh, pour wax ne euh, sur le problème des accords de pêche amul benn problème beneen particularité bi nga xam ne moo ci am aussi il faut que euh, ñu euh, parce que Sénégal aussi des fois y a beaucoup de gens yu nga xam ne dañuy dañuy spéculer di wax ci des fois lu nga xam ne peut-être maitriser wu ñu ko euh, des fois moi je euh, des leaders de l'opposition qui parlent d'une certaine façon Euh, avec une ak beaucoup de légèreté moi je me demande je me dis que ça c'est pas normal mm-hmm. c'est-à-dire même su dee da ngay opposé wu il faut le faire dans les règles cest wax ni manipulation dafa am ci mbir mi absolument non absolument tu sais pourquoi parce que ce que je voulais dire par rapport à ça c'est-à-dire yéen li nga xam ne moom la ñu signé muy le thon mm-hmm. ak le merlu 1750 très bien voilà gis nga euh, au Sénégal euh, vous conviendrez avec moi nous avons des habitudes alimentaires c'est-à-dire aujourd'hui euh, je, je je peux le dire peut-être sans me tromper que ne jaww doo lekk merlu lu bëri. Mhm. doo doo lekk ton jënu ton bi lu bëri. am na ñoo xam ne sax Sénégal dañoo xam ne thon bi dañ koy dañ koy allergie dafay génn ay trucs. Mhm. finalement bokkul si jën yi nga xam ne moom lañ gën a prisé au Sénégal. beneen bi si topp ay ay espèces lañ yoo xam ne aussi c'est-à-dire ñun suñ suñu pêchewul loolu euh, wala ñu joxewuñu pour ñu pêche que en fait ñun ñoo ciy perte tu sais pourquoi dañu nekk ay espèces yoo xam ne c'est des espèces migratoires yu nga xam ne euh, dañuy dañuy jóge dañuy dañuy mën nañ jóge fii traversé fii dem ba dem ba Angola Brésil fu nekk mën nañ fa dem Atlantique bi dafa yaatu mais yooyu yëpp c'est des c'est des aspects techniques yoo xam ne peut-être ñi ñu bari xëj na duñ ko xam mais en vérité amul benn problème bu nga xam ne am na maanaam manquement wala désagrément en tout cas loo xam ne dafay nërmeel l'économie du Sénégal par rapport aux accords signés. loolu moom je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord du tout parce que mm-hmm. boo ñëwee nekk euh, di wax ay waxu 2014 ba 2019 euh, am na yu bëri yoo xamante ne du opposition bi mais nit ñi tamit bu document génnee dañ koy xool saytuwaat ko. Mm-hmm. léegi euh, c'est un peu léger quand même de donner l'exemple du ton. parce que ñun ñoo moom suñu parti wu géej bu ñu suñu neexee ñu lekk ko suñu neexee duñ ko lekk mais muy dem ba di am ay accord entre euh, l'Union européenne ba ñu wax ko jënd euh, di di jënd ay dix 000 tonnes ba nga xamante ne euh, ñun suñu nappkat yi bu ñu demee ci géej bi du ñu am dara c'est désolant mais je suis désolée mais je suis pas d'accord Euh, men pour parler. Euh, mën naa siyokk tuuti rek. non e bi mooy dem. te man vous m'avez pas convaincu <laughs> sur ce sur ce truc là parce que voilà c'est de la politique quoi. <laughs> léegi comment pouvez-vous nous expliquer comment nga mën a expliquer les Sénégalais les yeux dans les yeux un tel bradage de nos ressources halieutiques xanaa loolu nag di ma di ma kii parce que c'est un c'est un <laughs> mais absolument xam nga euh, cest dire bradage de de nos ressources halieutiques moi je crois que le mot est trop fort. pourquoi mais c'est ce qui se passe. parce que en fait euh, xam nga réew bu nekk dafa am ay normes yu nga xam ne moom lay teg pour sa politique. et moi je crois que euh, la politique du Sénégal a été tellement bien définie par le président de la République et que ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñu yore wàllu nappa gi di ci di ci dox. pour l'intérêt du Sénégal je crois que ni ils sont en train de faire un excellent travail euh, vous dites que peut-être ton yi nga xam ne certes yéen mën nañ ko lii wala jël ay kii mais généralement sunu pêcheurs yi ngeen di wax nos pêcheurs artisanaux yi nga xam ne ñoom ñooy dem certes di nappi di di góorgóorlu mais am na foo xam ne ci ay ci géej gi ñoom sax duñ fa egg duñ fa egg ci wàllu pêche parce que peut-être ils n'ont même pas peut-être les moyens par rapport ak euh, moyens yi ñuy utiliser pour dem nappi ji d'autant plus que euh, ay merlu yooyu c'est ñu ngi koy amee en en main profonde donc dafa am yoo xam ne c'est pas c'est pas possible mais pour vous dire la vérité que mooy euh, pêche bi bu ñu waxalee yàlla depuis l'avènement du président Macky Sall en tout cas en 2012 à aujourd'hui la pêche gis nañu ne président jàppale na leen ci fànn yu bari pour defar seen liggéey dans le cadre de la pêche muy les les les les les les les pêcheurs yi ngay wax ñuy dem géej déjà li président jëkk a def mooy xam kenn ku nekk li nga am pour dem di liggéey mooy sa ngànnaay bi ngay yore. ñu jàppale la ci. du dëgg maanaam ci wàllu pêche bi ñoom ñi nga xam ne ñuy defar dañu yore gaal yi di soxla ay moteur mais président dafa jël xaalis bu takku subventionné ko. Mhm. ba nga xam ne tey su gaal bi. moteuru gaal bi di jar un million trois cent président ne man fayal naa la yow un million bi yow trois cent ngay fay et moi je loolu c'est extrêmement important boo jëlee gilet de sauvetage yi dañu ko di wàññi d'une façon ba nga xam ne ñëpp ay am gilet de sauvetage mm-hmm. pratiquement sax am na ñoo xam ne dañu doon jël ay gilet de sauvetage di di comme ni ñu doon joxee masques yi mm-hmm. masques yi par rapport à la Covid noonu la doon demee di jàppale nit ñi mm-hmm. pêcheurs di leen jox ay gilet de sauvetage pour que ñuy protéger seen bopp bu ñuy dem géej et je crois que ne wàññi wàññi wàññi carburant bi par rapport ak ñoom c'est-à-dire y a les femmes transformatrices ñu jàppale leen ci ay financement en tout cas le secteur de la pêche construire des infrastructures de taille. boo demee par exemple dans beaucoup de zones au Sénégal. il y a tellement de euh, de d' yu nga xam ne def nañ ko surtout les femmes transformatrices nga xam ne à bu jëkk ba. je parle li may wax ni je parle devant tous les sénégalais bu njëkk ba dañu doon sonn da nga leen gis famille ñu nekk ci naaj bi. di defar seen seen i transformer jën yi c'était c'était pas facile. aujourd'hui le président bi mu ñëwee. il faut lui reconnaître que nous avons un président de la République quand même bu nga xam ne am na yërmande ci askanam raison pour laquelle mu fexe ba femmes yooyu ñu utal leen ay zone de transforma ay zone transformation euh, zone de transformation yoo xam ne yi euh, infrastructure yooyu dina leen permettre non seulement dañuy dañuy solu defaru ba jekk ñëw di euh, naaj bi dootul dal ci seen kaw ñu utal leen sax à la limite ay genre comme genre kiiw espace yoo xam ne pour comme genre jardin lay doon mhm. pour seen ñi nga xam ne ñu yor seen doom ñu mën leen bàyyi foofu ñuy foo di d'accord donc moi je crois dans le secteur de la ah, pêche on beaucoup fait mhm. franchement oui loolu ànd nañ ci ak yéen am na lu bari yoo xamante ne non non ci ci réalisation yi c'est c'est c'est des choses yoo xamante ni c'est vrai gisoon nañ ko ah. mais le vrai débat pour delluwaat ci accord de euh, pêche yi mhm. euh, sànq ñu ngi ko euh, doon wax ñaari espèce moom ngeen permettre bateau yi nga xam ne dañu war a jóge Union européenne mu toll ci 45 ñu daal di koy napp ci sunuy waax muy thon bi ak merlu noir bi duñ ci attardé mais li nga xamante ne moom mooy fond problème bi yow ministère de la pêche nga nekk xëy na di ñu ciy gindi borom xam-xam yi euh, nee nañu li nga xam ne moom la ñu jaayee jën bi dafa tuuti loolu ndax 10 mille 10 euh, milliards la ñuy encaissé sur 5 ans ñoom nee nañ boo ko xaymee dafa mel ni kilo jën bu nekk li ngi leen koy jaayee du sax mot ñeen fukk Sénégal par rapport au accord toujours ah il faut aussi des fois relativiser parce en fait euh, maa ngi la ko doon wax sànq euh, xam nga géej gi au-delà même du Sénégal dañu am yeneeni dëkk yu nga xam ne aussi dañu am des accords ak ñoom ci wàllu napp gi d'ailleurs boo xoolee loolu moo indi am nañu par exemple benn kuréel bu nga xam ne mu ngi nekk bitim réew en Espagne plus précisément muy laa Euh, comité bi nga xam ne moo yore la conservation euh, internationale des pêches thonidés maanaam thon bi mhm. nga xam ne d'ailleurs actuellement sax ki ko jiite c'est un sénégalais euh, Camille Jean-Pierre Manel nga xam ne moo il fut directeur des pêches maritimes moom actuellement c'est lui qui est là donc pays yooyu yëpp dafa am loo xam ne lii comme ni ma koy waxee Sénégal amu ci en aucun lu mu si perte wala lu mu si d'autant plus que mais tuutiwul loo xam ne boo ko xaymawee euh, kilo bi sax en fait xam nga xam nga tuuti mhm. euh, ça dépend c'est c'est c'est toujours relatif mën mën mën na tuuti effectivement comme la preuve nee naa la en 2014 ñu ngi amoon quatorze mille tonnes lañ doon jox bii yoon ñëw na ba dix mille tonnes. ba plus impa euh, compa euh, affaire bi yokku na kon ça veut dire que ne am na ay jéego yu ñu def beneen bi si topp il faut aussi ngeen bàyyi xel la compensation financière bi nga xam ne Union européenne da kay jël joxe ko pour. li nga xam ne mooy jàppale nag maintenant napp gi jàppale sur des infrastructures mais loolu yeneen ay plus de neuf cent mille euros yoo xam ne yi day duggaat ci ci ci ci réew mi pour jàppale ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñooy liggéey en tout cas secteur bi yaakaar naa ne loolu aussi am na solo maintenant euh, nappkat yi gisuñu ko de parce que ñu ngi jooy am non napp xam nga nappkat yi gisuñu ko naa ñu ngi jooy keroog on a reçu on a reçu quelqu'un mhm. parce que aussi Euh, heure bi dafa gaaw on va pas vous laisser aussi dérouler dérouler ba nga xamante ne euh, euh, question yi ñu la bëgg a poser duñ la ko poser bu boobaa vous serez insatisfait et nos téléspectateurs aussi on besoin de nous voir évoluer keroog fii on a reçu un rescapé boo xam ne ne la mais moom il dit que kii bi géej bi amul jën il est obligé balaa que muy dem euh, en Espagne et tout ça comme c'est un rescapé mais ñoom dañuy dem ba ay Freetown toog ay 4 4 jours yoo xamante ni du ñu gis jën mais loolu man euh, dama lay wax parce que d'accorduma si li nga wax mais dañu seetlu le 8 octobre dernier dafa amoon conseil municipal au niveau de Bambilor dont vous êtes membre. oui mu amoon benn euh, point de presse pour interpeller le maire ngan Diop sur sa gestion du Covid. et des quatre-vingts millions décaissés est-ce que yow mën nga ñu quatre-vingts millions yooyu fan la ko dugal ndax ci askan bi la walla dara parce que pour ñun c'est une nébuleuse. oui en fait ce que je peux dire par rapport à sa euh, moi moi personnellement au moment wu euh, Covid bi di am il s'est trouvé que euh, j'étais j'étais malade c'est-à-dire j'étais malade. et à cette période-là j'étais hospitalisé donc moment boobu en vérité mu xaw xawma réellement ce qui s'est passé mais li ma mën a wax mu leer mooy euh, ci ñu maire lañ déggee mu ne il il va décaisser quatre-vingts millions pour jàppale askan bi par rapport ak la pandémie il s'est trouvé que ces quatre-vingts millions n'ont pas pu être décaissés toujours. Mm. par les services euh, en tout cas de la mairie ils nous ont fait comprendre que li ñu décaissé finalement matul loolu euh, cinquante neuf millions et quelques la ñu mujjee décaissé pour loolu donc démb pas plus tard que hier j'étais en réunion de conseil municipal donc loolu li may wax ni démb loolu la maire wax foofu devant euh, les les les ses adjoints devant tout le conseil municipal ñu wax si nit ñi joxe seen xalaat nit ñi wax effectivement am na ay divergence yu nga xam ne am na fa ci biir conseil municipal bi ñi nga xam ne d'accord ñu ci li nga xam ne maire wax na ko mais vous savez nous sommes en démocratie nit ñi da ngay wax li nga li nga gis moom ngay wax ñeneen ñi ci d'accordul joxe seen wàll wax ne d'accorduñ ci lii aussi donc mais le plus important mooy que le maire en question mu comprendre ne sénégalais yi en l'occurrence la le conseil municipal de Bambilor ñi nga xam ne euh, en 2014 dañu àndoon ñu dem élection mu gañ ñu gañe après ñu ëlbatiku tànn ko mu nekk le maire moom aussi am na euh, maanaam reconnaissance bu mu war a am vis-à-vis de ces gens là ba nga xam ne lépp lu muy doxal daf day góorgóorlu en tout cas ba teg ko ci yoon loolu euh, c'est un c'est un appel bu nga xam ne mën nañ ko ko def en tant que maire de la commune de Bambilor loolu moom mën mën naa koo seede mën naa ko wax parce que lu ma fekkee la démb yaa y a effectivement il eu quand même quelques problèmes yoo xam ne c'était par rapport à ça des gens qui n'ont pas été d'accord du tout par rapport à la gestion euh, par rapport disons au décaissement de ces 80 millions euh, le maire a expliqué que millions là. millions et quelques là kon mais millions c'est-à-dire d'où millions yu disponible la mu jël que après jël 59 millions non c'est-à-dire que nag millions la amoon yéene décaissé ko pour loolu mais malheureusement par rapport ak li nga xam ne moom la ñu amoon comme discipline matul loolu donc loolu finalement loolu départ mais ça indi na coow effectivement ci biir conseil bi mais biñ ci waxtaanee ñooñu wax nañu li leen metti mhm. conseil municipal bi wax ñi ñëpp ñi si war a prononcé wu prononcé wu si après ñu dem mais li nga xam ne moom laa mën a wax aussi mooy xam nga man lu nga xam ne fekkew ma euh, période boobu di pandémie bi di démarrer dafa tombé j'étais j'étais j'étais souffrant donc euh, pratiquement je suis resté plus de ay quatre cinq mois yoo xam ne génn mu woon fenn xam nga donc pour des raisons de santé mais maa ngi sant yàlla bu baax mais loolu laa ne tout ce qui est antérieur am na loo xam ne fekkewu ma ko. Mm-hmm. yenn réunions yi duma ko fekkee yenn conseil yi. mais boo ko fekkeewul boo ko <laughs> fekkeewul mën nga saytu. quand même pour xam fan la xam kii bi génn. léegi euh, seet nañu aussi le maire de Bambilor dañ koy épingler dans un scandale foncier. Mm. avec des attributions irrégulières. de terres, des terres à des personnalités de ce pays. Diane Diop croit que Bambilor est, la propriété, est sa propriété privée lan nga moom si mën a tontu. waaw xam nga li ma mën a tontu foofu ci attribution yi suuf yeeg yooyu man personnellement je suis conseiller municipal. Euh, nit ñi bu ñu bu ñu bu ñu amee par exemple euh, dafay am ñoo xam ne dañuy am seen tool supposons walla seen espace yu ñu moom suuf ñu ñëw. mais dañu koy par exemple dañ ko bëgg a morceler en tout cas bu ñu ñëwee dañuy ñëw obligé ñëw signer un protocole avec la mairie mais loolu euh, c'est le maire le maire qui est responsable de tout ça parce que moom mooy signer protocole bi parce que quoi qu'on puisse dire aussi moom la ñu dénk mairie bi moom mooy moom c'est lui qui est le responsable moom mooy répondre mm. moom mooy signer protocole yi ak ñoom bu signee protocole yi nag euh, euh, li nga xam ne moom la ñuy def ñoom dañuy dem trésor fay seen i ordre de recette après ñëw je je reconnais que ne des fois am na ay lenteur yu nga xam ne day am mm, par rapport ak ñi nga xam ne dañu war a jot seen kayit mais loolu c'est lié peut-être au nombre volumineux yi nga xam ne am na d'autant plus que la commune de Bambilor et une commune quand même très vaste mm-hmm. c'est une commune très vaste bu nga xam ne euh, actuellement par rapport ak euh, ñu xam ne boo xoolee dans la région de Dakar mun nañu wax ne la commune de Bambilor en tout cas le département de Rufisque pour parler beaucoup plus large moo ëpp ay réserve foncières ay suuf yu nga xam ne nit ñi mën nañ ci dëkk ci donc nous avons eu benn genre boom démographique bu ñëw si cette zone la parce que nit ñi aussi duñ dëkk si géej gi duñ dëkk si si jaww ji si suuf la ñuy dëkk donc il va falloir ñoom tamit ñuy ñëw mais ce que je peux dire mooy en tout cas par rapport au manquement yi nga xam ne évoqué nga que man je crois que ne c'est extrêmement important le maire ak euh, son administration ñu gën a veiller sur ce que vous avez dit là gën a góorlu ba di fexe di di di di gën a transparent par rapport ak li nga xam ne moom moom lañ leen dénk. Mhm. alors euh, côté transparence boobu xam naa dinañ ci dellu dellusiwaat ci euh, kanam mais man vraiment mbirum euh, napp gi daf ma soxal bëgg naa ñu mhm. dellu ci rawatina feebar bi nga xam ne dañ koo nemmeeku jamono ji ci géej gi ay nappkat yu demoon ci dem uti jën ñibbisi waale ak jàngoro jamono ji sax évolution bi ñu ngi ñaan mu continuer noonu ndax ñu bari faj nañ leen ba ñu dellusiwaat ci seen. Euh, njaboot yow mi nga xam ne yaa ngi ministère de la pêche lan nga ñu mën a wax lu bees ci mbir mu yéeme boobu ñu gis ci géej gi. waaw mbir mi man je crois que euh, ñun ñëpp ñoo ñoo ko gisandoo ah ce qui s'est passé muy un problème quand même très très sérieux mm-hmm. mais euh, liñ ci nga xam ne mën nañ ci ci wax mooy gis nañu ne daal li ñu jot a am ci information yi que yàlla def na sutura au moins que nee nañ ju feebar boo xam ne day wàlle déjà dina mën a tax ñu gën a circonscrire euh, feebar boobu ba peut-être du du du évoluer mhm. présentement aussi je sais que ne euh, nos autorités euh, étatiques en l'occurrence ministère de la santé et de l'action mhm. sociale wax dëgg yàlla def nañ ci ay gëstu di nga wax ne peut-être su fekk suba wu ginnaaw suba dinañ am peut-être des données yu nga xam ne yi ñi nga xam ne dañu xarañ ci wàllu médecine mhm. dinañ génne les conclusions pour wane ne lii Euh, bu amee lii mooy tax pour que nit ñi man di prononcé wu ci la parce que xam nga mënoo jël loo xam ne ni mu dikkee xamoo ko mhm. nga bëgg ci prononcé wu di wax ne lii moo ko waral la wala la moo ko waral mhm. vraiment day doon loo xam ne lii bon dëgër fit lay doon quoi ak manque de respect aux gens mhm. donc euh, c'est c'est problème boo xam ne bii il faut que nous am le temps euh, may ñooñu waaw tuuti rek ñu génn résultat yi pour le bien des Sénégalais mais je sais que ne nous avons en tout cas un ministère euh, de la santé boo xam ne bi wane na ay preuve am par rapport ak la gestion de la pandémie sénégalais yëpp reconnaître nañ ne sénégal góor góorlu na ba euh, pandémie bi gérer nañ ko gérer boo xam ne bi am na solo et ça nous le devons aux, autorités euh, de, de, du ministère de la santé et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la santé nos vaillants médecins et nos professeurs et chercheurs vraiment qui ont fait un excellent mmh. Euh, ce qu'il faut dire tout simplement euh, que ñu bañ a bañ a bàyyeeku ne maladie bi ngi wàññeeku rek ñu bàyyiwaat reprendre nos vieilles habitudes là il va falloir que ñu gën a taxaw gën a raxas loxo yi gën a respecter hygiène yi euh, d'autant plus que école tijji na xale yaa ngi dem école et loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel quoi parce que monsieur Seck waruñu xool aussi comme li nga wax que y a eu une bonne prise en charge et très rapidement de la part du ministère de la santé mais est-ce que waruloo tamit on doit pas se poser des questions lan moo war a tax quand on que dafa am loo xam ne dañ ko tuur si diggu géej bi est-ce que tamit yéen ngi saytu loolu très bien et moi je crois que loolu aussi am na solo parce que mhm. boo xoolee au niveau en tout cas du, ministère am na euh, lu nga xam ne ñu ngi siy góorgóorlu par rapport à la surveillance des pêches mhm. d'ailleurs euh, boo xoolee code de la pêche pêche bi nga xam ne voté nañ ko assemblée nationale mu nga xam ne mu nekk euh, viatique pour en tout cas ñun ci wàllu surveillance des pêches maanaam la pêche INN mooy la pêche illégale mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa ne ñu ngi ciy def liggéey bu am solo par rapport à la surveillance de nos côtes ñu ngi même di arraisonner ay bato et je vous que les amendes la dañuy dem jusqu'à un milliard donc ñu non seulement loolu euh, dina tax ñi nga xam ne dañu amoon ay idées yu yu ñaaw wala bëgg def naka su noonu dina nekk benn moyen dissuasif bu mhm. leen permettre ñu bàyyi xel lu bari mhm. quoi mais franchement c'est un problème que nous avons pris à bras le corps et mhm. on est en train de travailler dessus et Parce ça je peux vous dire que franchement parler le ministère en l'occurrence euh, le ministère de la pêche euh, Alioune Ndoye euh, actuellement est en de travailler sur ça avec l'ensemble de ses services. parce que on a l'impression que yeneen gaal yi et tout dafa am loo xamante ni dañ ko jël sotti ko ci géej bi non seulement on sera privé de poisson parce que nañ ko wax mu neex. suñu doom yi ñu ngi si biir géej bi. léegi mhm. tout le monde a peur de manger du poisson. ba pare ñuy waxate encore ñi nga xam ne dañu war a dem uti euh, euh, jën. on les empêche euh, d'y aller. Mhm. donc y a quelque chose boo xam ne dañ ko war a xel dafa xel dafa dafa war a ñaaw. léegi tamit ma bëgg a dellu si si loo xamante ne. Mhm. dam dañ ko nit yi dañ koy gis la la la rivalité malsaine. bi nga xamante ne euh, dafa am entre le maire nga Diop et les hommes du ministre Oumar Gueye dont vous faites partie euh, qui se qui se dispute le département de Rufisque mm-hmm. les politiciens yéen politiciens yi est-ce que xam euh, jëlu leen un peu ce département en otage quand on sait que am na yeneen yëf yoo xamante ne population yi ñu ngi leen di xaar Rufisque ne ne retrouve pas son lustre d'antan donc est-ce que au lieu ngeen di xuloo waxu leen eh, kii si liggéey bi. c'est vrai très bien là mën naa la ci tontu aussi avec euh, toute la rigueur nécessaire et parce que je c'est lu ma lu ma fekk la quoi li ma li nga xam ne lu ma fekk la parce que quand même nous sommes très enfin nous sommes jeunes relativement jeunes parce que dañuy teel a dugg ci politique xam nga donc euh, euh, am nañu au moins une expérience vieille de quasi trent ans de militantisme actif donc am na lu bëri lu nga xam ne fekk nañ ko malgré notre jeune âge mais li ma mën a wax dans le département de Rufisque plus précisément par rapport à la politique il s'est trouvé que en bi président Macky Sall ñëwee falu en 2012 avant muy ñëw dafa am président ñu àndoon ak moom mm. ñi àndoon ak moom di xeex ak moom ba mu falu en 2012 on souvent dañ leen di tuddee sax euh, les les apéristes authentiques mm-hmm. cest à ñi nga xam ne ñoo àndoon ak président dès les premières heures ba lool mm-hmm. alors euh, bi président ñëwee au second tour de l'élection présidentielle en 2012 si la ñu ñëw ànd ak moom président Macky Sall parce que nous étions dans un autre parti ñun ñëpp yeneen parti la ñu nekkoon ñu ñëw ànd ak moom ci coalition boobu mm-hmm. Benno mbokk Yaakaar ba ñu gagné élection yi bi gañee gagné élection yi ñu continuer nag di di di di cheminer ensemble bi nga xamee ne intégré nañ aussi le parti du président de la République il s'est trouvé que dans le département de Rufisque plus précisément euh, dañu ne woon wax ñi nga les maires maire yi nga xam ne dañu gagné woon au moins mu nekk des maires apéristes mm-hmm. ñu ne ñoom ñu créé ce qu'on appelle la conférence des maire ñoom biñ ko créer ñu jël instant boobu Oumar Gueye mu mu jiite ko euh, ñu si dox di si dox ba si yàgg ñu créer beneen ndaje boo xam ne bii ñu ngi ko créé à Toubab Dialaw si la ñu bo jour boobu la maire yi ñëw ak responsable yi ñu ne Oumar Gueye mooy le coordonnateur du parti ñu ànd si am na ñu si d'accordoon mais am na ñu si d'accordul aussi parce que nous sommes en politique on ne peut pas faire l'unanimité mm-hmm. day am ñu ànd ak yow am ñu àndul ak yow ñu nekk ci loolu di ci dox di ci dox ba si vous vous rappelez quand le président de la République est venu à Rufisque dans le cadre euh, des tournées euh, conseil des ministres très bien à euh, Rufisque président ñëw na fa fanaan fa ce qui veut dire que ne mais bi mu ñuy recevoir le département il nous il a dit que ne c'est Oumar Gueye qui coordonne le, les activités du parti dans le département mu wax sax doyen Omer Seck que mooy suñu mooy mooy doyen parti ki doyen d'honneur u parti bi alors ci cadre boobu ci lañ continuer di liggéey euh, ba léegi nii mais présentement ce que je peux vous dire dans le département politiquement parlant am nañu ay yokku-yokkute yu am parce que pratiquement maire yi nga xam ne dañu dañu ga parce que pour vous rappeler en 2014 on n'avait pas gagné la ville de Rufisque on n'avait pas gagné Rufisque Nord ni Rufisque Ouest ni Rufisque Est on avait perdu toutes ces collectivités territoriales mais ñu si bari après ils ont rejoint la mouvance présidentielle ànd ak le président Sall donc ma wax ne dans le département de Rufisque globalement parlant mën nañu wax ne ña fa nekk ñëpp tey collectivité yëpp ñu ngi ànd ak le président de la République Macky Sall donc c'est dans cette dynamique là la ñu ànd dem et je vous dis que depuis 2012 à nos jours amul benn élection bu nga xam ne am na Rufisque boo xam ne l'APR perte na ko on a tout gagné malgré les difficultés donc vous parlez c'est vrai que y eu des difficultés sur le plan politique leaders yi dañuy am problème tey duñu jubo di xul yooyu c'est c'est inhérent à la vie d'un parti mm -hmm. aussi grand que le parti l'Alliance pour la mais de manière globale euh, Tëngéej certes, il mérite beaucoup plus parce que, quoi qu'on puisse dire, mhm. lors de la dernière présidentielle passée, Rufisque a gagné au premier tour, comme on dit, parce que nous avions fait un résultat extrêmement important qui a fait que la ville de Rufisque, comme vous dites, a toujours joué les grands rôles. Euh, et je pense que le président de la République xam na loolu. Mhm. mu ngi ja gën la jeunesse. du département de Rufisque gën a gëstu les cadres du département. parce que vraiment il mérite d'être promu d'autant plus que depuis 2012 ak ba président faloog léegi amul benn élection bu ñëw département de Rufisque. boo xam ne président ñàkk na monsieur Seck léegi comment après nooy apprécier la guerre des mots entre Idrissa Seck et Mimi Touré et Oui, en fait, euh, selon la tradition républicaine, hein, la, euh, il est, c'est normal que passation buy service buy am généralement dafa war a am entre le sortant et l'entrant. Mm-hmm. Et on a vu c'est pas du loo xam ne lii aussi lu euh, lu figé la quoi dafa war a nekk mais su nekkul aussi am na de yeneen mécanisme. moo Très bien, voilà, je parlais tout de d'élégance républicaine. Euh, ce qui s'est passé Mimi ak Idrissa effectivement fekkantewuñu fa. Euh, am na effectivement ay coow yuñ ci wax par Mimi Idrissa mais man li ma gis mooy li ma li ma li ma déglu ci li ki nga xam ne moom mooy principal concerné Mimi Touré li nga xam ne wax na ko ñu dégg ak Idrissa Seck mi nga xam ne jël na euh, reen yi bi mu toogee li nga xam ne moom la wax li ñuy wax ne way dañuy am ay guerre parce que Idi dafa bëgg auditer la gestion de mii dafa bëgg lii Mimi dafa bëgg la moom personnellement wax na ne loolu franchement parler je ne vous apprends rien du tout vous avez peut-être les bandes mm-hmm. Mm-hmm. donc wax na ne loolu dara amu ci mm-hmm. et que moom li mu tal mooy fi mu ne nii lii ñu ko dénk mu fexe liggéey ko liggéey boo xam ne bii président de la république dina ci am satisfaction mais sénégalais yi aussi dinañ ci am satisfaction je crois que loolu mooy li gën a am solo ko dañuy faral di wax ne président Macky Sall du àtte xeex Bon, vous savez, il euh, divise pour mieux régner. Moi, je crois que euh, président de la République, son intérêt, c'est pas de diviser pour régner. D'autant plus que parti bi nga xam ne moo moo moom la yore muy Alliance pour la République. Mhm. ak la coalition Benno mbokk Yaakaar la grande mouvance présidentielle moom la ñu àndal. Mhm. moom ah, la ñu àndal moom la ñuy mhm. jàppale moom la ñuy soutenir. maintenant euh, dafa am yoo xam ne aussi des fois il faut ñu comprendre que le président de la République aussi. une fois que mu nekk président de la République du Sénégal nekkatul président wu APR nekkatul président wu Benno dafa nekk président du Sénégal mhm. boo nekkee président du Sénégal jaboote ñëpp nag du ñàkk am réew dina am des fois ay jafe-jafe dina am yoo xam ne mais war li mu li ma gëm man mooy président dafa bëgg boole ñëpp. Mhm. loolu moo indi cette ouverture là. Mhm. ba ay Idrissa Seck ak ñoom Omar sar ak les autres qui qui doivent venir et tant d'autres parce qu'en fait il y a un problème qui est là il faut qu'on le dise c'est-à-dire à un moment donné de l'histoire politique du Sénégal il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde muy la catastrophe de la pandémie qui a complètement bouleverser les choses si vous allez en Europe l'économie est Covid bi mi ngi fi waaj a jeex bi Idrissa Seck di leen rejoindre daanaka Covid bi jeex na oui non en fait Covid bi Covid jeex na te bi ñu tàmbalee waxtaan ak léegi Covid amul woon oui mais quand vous parlez Covid bi jeex na mi door a ñëw moi je Covid bi jeexagul mhm. beneen bi si topp mais bi ñuy waxtaan Covid amagul woon il faut ngeen comprendre que nous si vous vous rappelez euh, on, on aimait le dire quand on était dans les plateaux que le Sénégal était sur la pente en tout cas d'IDEM dans le cadre ci wàllu croissance économique ñu ngi demoon bay attendre 7 pour cent de croissance et que buñ en fii ak 2023 24 on ñu ngi doon xalaat egg à euh, croissance à deux chiffres mm-hmm. mais vous avez vu ce qui s'est passé avec la pandémie on a complètement dégringolé ba dem ci ay moins d'un pour cent mm-hmm. voire pour cent ça veut dire que ne loolu lu am lu lu doy waar la mm-hmm. te li ñu war a fexe mooy góor góorgóorlu boole toutes nos forces ba redresser réew mi téyewaat ko mu tegu fi mu war a tegu man yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne c'est la raison pour laquelle loolu moo motivé en tout cas les patriotes du, de ce pays à l'image de Idrissa Seck et les autres leaders en tout cas qui sont venus accompagner le président de la République pour ñu jàpp ci réew mi pour doxal mais tey jii problème am na quand même seen diggante ak euh, Mimi ngeen wax ko ak euh, ngeen bañ ko wax parce que gis nañ déjà depuis la cérémonie de passation de service mhm. euh, Mimi Touré def discours ba mu jeex remercier wul benn yoon le président mi nga xam ne moom moo ko fa tabb tuddul turu ki nga xam ne moom moo a wutu mhm. après wax sànq mais bi ci mujj nag Euh, mooy kàddu yi nga xamante ni euh, Mimi Touré yëkkati na ko ne mi ngi jox dig euh, daje Sénégalais ci wàllum politique mais bi gën a gën a nag mujj mooy démb seen secrétariat exécutif national bi nga xam ni daanaka ñëpp dem nañ fa teew ba mu des Mimi Touré oui xam nga nous sommes au dañuy def politique mais li ma li ma gëm man laa wax de c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Mhm. C'est le président de la République qui a été élu au suffrage de Sénégalais. Mmh. président Macky Sall bu fekkoonte ne dafa man di dédoubler boppam fenn fu ne mu nekk fa kon ministère yëpp moo koy occupé mais parce que nit la moo tax mu jël ci pouvoir bi ko jox di joxewaat ay responsabilité ay nit ñuy liggéey. lu seen problème ak Mimi. ci cadre boobu la ñu Mimi Touré elle a été premier ministre elle a été ministre de la justice dans ce pays. elle a été premier ministre dans ce a été euh, conseiller spécial. Euh, envoyé spécial du président de la République Mimi Touré était président du conseil économique social et environnemental mhm. c'est-à-dire bu ñuy wax quelqu'un boo xam ne bi peut-être dans le parti bokk APR ku ku président jox cër la ku mu jàppale la mën nañ tudd Mimi Touré mhm. parce que ku la defal yooyu yëpp c'est-à-dire kon peut-être mën nañu wax wàccoon yow d'autant plus que nañu comprendre ne Sénégalais Sénégal nous sommes 15 de Sénégalais et que sur ces 15 de Sénégalais il y a des gens aussi ñi nga xam ne peut-être nekkuñu ci gouvernement nekkuñu ci dara ils son tellement compétents et pourtant nekkuñu foofu donc c'est un honneur de servir son pays à un certain niveau de de responsabilité. Mm-hmm. mais c'est pas buñ la génnee peut-être li tax moom mu am cette attitude mu am cette attitude vis-à-vis du président de la République man loolu mënuma ko wax parce que xawma ko. mais li ma mën a xam mooy. ki nga xam ne moo la defal loolu yëpp am na une certaine reconnaissance bu nga xam ne war na ko am aussi c'est une personnalité politique que je respecte beaucoup mm. elle a la possibilité de de de dire oui comme elle a la possibilité de dire non mm. si elle a des ambitions euh, les Sénégalais vont en savoir sous peu ko xam parce que nag on ne peut pas aussi empêcher les gens d'avoir des ambitions présidentielles ah il nous reste euh, que mm-hmm. quelques minutes te mënuñu la bañ est-ce que yéen euh, au sein de la l'APR euh, ragalu leen réaction mi mi Touré et de tout ces personalités yi nga xamante ne qui sont victimes du dernier remaniement, remaniement. ministériel oui en fait ma man duma ko tuddee victime parce que euh, on a vu que ne à chaque fois day am toujours un remaniement ministériel ñu am ñu ñu indi am ñu ñu génn ñu dem ba à un ñu ne vous savez exemple ndaw la laay jël quoi c'est comme ku yore sa équipe de football des fois da ngay da ngay def ay classement ni ñu daw mais au fil du temps des nga génne ñeen parce par fois sax nga génne ki ñu ne mooy le meilleur joueur de l' équipe des nga génne ko parce que day essoufflé nga génne ko préserver ko après ñu gis nga dugalaat ko <laughs> c'est-à-dire ce que je par là euh, par exemple par rapport ñi nga xam ne moom la ñuy wax en dehors Mimi ak ñi mu mais moi je crois que hier ñooñu ñëpp ils ci euh, suñu scène bi et en plus de ça ñoom ñëpp renouveler nañ encore seen confiance ak seen ma seen seen membre en à part entière au parti mhm. ak seen loyauté vis-à-vis du président de la république te ñooñu ñëpp président mun na leen yóbbuwaat ci yeneen sphère yi fu mu yaakaar ni kii war naa ko yóbbu mu téel ma fii lool parce que Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko war a dépasser c'est-à-dire boo xasee ba nekk ministre rek c'est-à-dire yow c'est terminé quoi yow waratoo nekk leneen mais on ne change pas une équipe qui gagne léegi. oui yow euh, da nga nekkoon APR. Euh, ki fee nga nekkoon réew mi. réew mi nga ñëw ko nekk. tout à fait après nga ñëw ak kii. waaw cest à réew nga ñëw réew mi nga ñëw réew mi nekkoon. waaw mais bi ñu ñëwee réew mi. ci élection présidentielle yi Idriss Seck moo nekkoon suñu candidat. Mhm. waaw en 2012. moo nekkoon mhm. suñu candidat. bi ñu demee au deuxième tour Macky Sall dem deuxième tour ak Ablaye Wade Idriss waxat ne avant sax que moom képp ku nga xam ne moo jël deuxième bu dul moom kooku lay soutenir. Mhm. ci cadre boobu ñun aussi ñu jàppale président Macky Sall. d'ailleurs la preuve man mhm. période boobu mu ma fekk en Italie mhm. parce que falaa doon militer moment boobu donc ñu daal di créer suñu coalition Benno Bokk Yaakaar foofu mhm. di di jàppale président Macky Sall di xeex pour président ba ni mu gañee bi mu gañee nag ñu ànd ak moom ci liggéey bi depuis boobu nag ñun on a préféré ànd ak moom jàppale ko si lañ resté bi mu amee ay jafe-jafe ci parti bi eh, ak ji après ñun aussi on est resté dans le parti. Mm-hmm. kon yéen da ngeen war da ngeen war euh, kii da ngeen war. Euh, Idrissa ñoom Idi daa génn ñoom ñu des. ñoom ak ñoom ñoo des waaw non du war. xam nga du xam nga lan la. Mm-hmm. c'est parce que dañu gis ne président Macky Sall moment boobu ñu ànd ak moom juste un an ñu gis ne mu ngi teg chalon yi mu ngi liggéey. franchement gisuñu woon lu tax ñu war ko bàyyi moo tax ñu taxaw ànd ak moom mais on avait aucun problème ak Idrissa mm-hmm. aucun problème franchement maintenant aussi que ñoom ñëpp tey ànd nañ euh, pour liggéey pour l'intérêt du Sénégal on peut dire que alhamdulilah mm-hmm. mm-hmm. loolu j'en profite pour ah. dire que même en en en Europe bi ñu fa nekkee en 2012 di ci liggéey pour pour pair maa ngi profité aussi di jaale un grand responsable du parti ki est décédé à à Londres nekkoon le coordonnateur vice coordonnateur de la l'APR euh, ci Italie muy le feu regretté Boubacar Thiam. Mm-hmm. dëkk Centenaire Gibraltar actuellement ñi ngi xaar sax corps bi pour mu ëgg si Sénégal mu ngi profité di ko jaalee ay wéyjuram ay mbokkam ak i xaritam mm-hmm. wax ne président la ku bëggoon président Macky sàll ku bëggoon parti bi la ku amoon dynamisme la ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yi firdaws d'accord sa émission jeex na Euh, temps bi ñu joxoon noonu jeex na léegi nekk euh, mën nga tàggoo. oui remercier euh, <laughs> voilà militants yi ak kii yi nga yónnee woon. <laughs> très bien. réew mi na xam mu benn bopp APR. <laughs> waaw APR waaw mën nga leen tàggu sa émission. en tout cas ce que je peux dire mooy d'abord di leen gërëm. di leen gërëm Fabienne. di la gërëm plus particulièrement parce que vous avez fait la fierté du Sénégal à un moment donné de l'histoire parce que ñu ngi fàttaliku. bi ngay nekk Miss Sénégal euh, c'est pas pour vous jeter des fleurs en tout cas mais vous faites partie des Miss yi nga xam ne marqué nañ seen époque bi ñu nekkee Miss Sénégal vraiment euh, c'était une fierté ñuy dégg Fabienne ci dans les instances internationales fi ngay dem yee podium yu gën a rëy ci adduna bi pour pour porter en tout cas le Sénégal en bandoulière loolu dañ koy rafetlu donc tey boobu ba léegi yaa ngi ci terrain bi tey nga nekkat un acteur ci réew mi pour le développement du pays donc bravo à toi ñu ngi lay ñaanal yaa li nga bëgg ci réew mi yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal di nuyu aussi l'ensemble ñi nga xam ne ñoom nga nekkal fii muy 2STV yi nga xam ne c'est la deuxième télé euh, du du Sénégal donc euh, te boobaak léegi liggéey bu am solo lañ fi gis seen émission yi c'est des émissions extraordinaires Sénégal dañuy suivre la 2STV de par la qualité des émissions de par la qualité des images mais de la pertinence aussi de vos journalistes ci yëpp fànn yëpp émissions yëpp donc du ñu man lu dul gërëm leen sant leen di gërëm wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp euh, ci département de Rufisque ci commune de Bambilor ci Kër Daouda Sarr gi nga xam ne fa laa dëkk ak waa Dakar yi département bi la convergence des cadres républicains la CCR euh, di nuyu aussi euh, toute ma famille euh, bi nekk Kër Daouda sax di nuyu aussi mon épouse ak mes enfants di leen gërëm ñoom tamit di leen sant di leen ñaanal di wax ne ñu ngi am mbégte lool c'était toujours un plaisir en tout cas de venir à, à la 2 pour répondre à l'appel et nous sommes toujours disponibles pour ce qui concerne en tout cas le Sénégal et le développement du pays merci beaucoup. Lassana merci euh, Fabienne merci ah, à Abdoul Aziz Seck ci invitation bi nga wuy si. à chaque fois di gërëm bu baax a baax suñuy téléspectateurs Fabienne il y a un jeune qui a 14 ans euh, di ñu seetaane depuis la Mauritanie démb lañu doon waxtaan ci Facebook bi mu ne mu limal ma émission 2S am na ci yenn yoo xamante ne sax man moom moo ko xamal. donc un clin d'œil particulier à Mokhtar depuis la Mauritanie un très jeune. Euh, Mauritanien de 14 ans ñu ngi koy mm-hmm. wax ni. Euh, ñu koy def un clin d'œil particulier et comme d'habitude un grand clin d'œil à Laxaat Mbaw di la jox kàddu gi dig daje samedi incha allah yaa ngi may yaa ngi may xulli <laughs> non léegi <laughs> euh, léegi cela veut dire rek ndeysaan bu ñuy wax ci tale bi nañu moytu mm-hmm, mm-hmm. parce que xale bu am 14 ans mu ngi lay déglu mm-hmm. yow di la liimal ay émission yoo xamante ne euh, ñun sax xëy na duñ ko seetaan toutes les émissions toutes les émissions donc euh, dafay tax rek ñu wax nag dafa yombul xam nga yéen yàlla rek moom euh, lu lu lu parfait donc euh, comme ni ñu koy waxee rek euh, voilà ñu ñu def attention léegi euh, voilà ñu ngi leen di tàggu ba beneen samedi di remercier téléspectateurs yi di remercier ñëpp ñoo xamante ne dañ may jàppale voilà di remercier particulièrement sama benn cousine bu tudd Suzanne Koumbassa koo xamante ne moo ma yar elle me di remercier sama yaay toute ma famille Euh, di euh, remercier caméraman ingénieur de son euh, la réalisatrice et toutes les personnes qui travaillent ici prenez soin de vous la vie est courte revoir. bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout se discute émission bi nga xamee ne sama chroniqueur préféré laa ci àndal muy monsieur Paco Jackson Thiam bonsoir. ñaari invité lañ leen indil en fait dañuy laal politique en même temps aussi ñu laal sport c'est normal actualité du moment la noonu la ñuy def dugal suñu première invité monsieur Faye bonsoir. suñu deuxième invité muy Badara Gadiaga mu nekk ci parti Rewmi monsieur Gadiaga bonsoir. équipe type équipe type boobu xam naa Aliou Cissé rek nga ko mën a laaj parce que je pense que man boo ma ko laajee laaj ko beneen sénégalais c' est la même chose ku la fi mën a génneel benn équipe ne la Issa xam nga dama lay expliquer benn affaire Issa xam nga ne depuis qu'il est là cinq ans ah. il fait du bon boulot mhm. mais amul ossature amul ossature xam nga ossature am sax mooy nee na xañ na Gana Gueye la Kouyate ñoom seen quatre-vingt-sept jours la essayé depuis mu fi nekkee ak léegi ça veut dire at bu jot dina essayé trente jours loolu kenn musul gis ci àdduna <laughs> c'est un peu gauche xalaatuñu woon loolu en fait que Idy aujourd'hui tey dina dem ci non àdduna li e am adduna présentement mhm. xam nga dañ ni c'est la situation qui crée l'exception même en religion mhm. maanaam gis nga même diine mhm. am na fu muy toll yàlla may la ay exception yoo xam ne kenn xalaatu ko woon dama avec euh, tout le respect que je te dois. Mhm. Mhm. li nga may wax nii. Mhm. ay tiga dege la. day dugg fii parce que man dama jàpp ni plus un complot. que vraiment des raisons parce que mënu leen ma wax Covid ñaa ñoo nga xam ne ñu ngi wax waxtaan depuis quinze mois. jafe-jafe ci wàllum koom gi. bokk si li tax ba xale yi daal di song géej gi yile ndaw xamle saa su ne ndool gi moo waral ñu daal di tayle seen bakkan ngir jël mbëkk mi wutali barsa wala barsaq ginnaaw bi ñu ñàkkee yaakaar ci seen ëllëg fii si miim réew laaj samp nag ngir xam lan mooy njëriñu politique yi ñu tëral ngir wàllu ndaw ñi ana lan moo waral xale yi mënuñu am xëy donte ni am nañu seeni lijaasa xale yi doon ab atu waaye mu mel ni fii ci Sénégal ak Afrique yépp ndaw yi ab jafe ci nguur yi fi mës a jaar ngir wutal leen lii di xëy ngir waxtaanee li ni nag seen émission li fas yéene def ab gëstu bu yaa Babacar Dione na chroniqueuse yi di dalal madame Yacine Fall économiste nekk leader mouvement def li la war ak kii di El Hadj Mansour Samb nekk économiste consultant waay it di écrivain. woy leen di bokk ci émission bi ci suñu plateforme sekk laaj ak tontu ci li ñuy waxtaanee seen émission lii li yitteel askan wi rekk lay waxtaanee. parce que xam nga benn affaire nga boo deful attention di nga perdre Fanta non mais je boo deful attention di nga ko perdre gis nga temps yi nu mu ko langalee booy Massam. li nga su ma si jàpp l'entreprise de ton mari va sombrer parce que ñi mu ko seqal ñoo ko ëpp doole ëpp ko fit ëpp ko mën-mën.